sayidina adam alayhi salaam bokk na ca ñi gën a mettale mission ci yonent te léeg-léeg histoire minimise léeg-léeg histoire minimise ko ndax reyuñu ko ci xare moo te histoire ki muy ki muy yërëm toujours mooy ku ñu rey ci xare walla ku ay xeetam assassiné comme yeneen yàlla Yaxya aadama li mu fi enduré néew na ku ko enduré ndax dafa doon jooyu jooyu xol te jooyu xol moo gën a metti jooyu bët ndax dafa xëy rek ñaari doomam reyante xabil xabil kii assassiné kii njëkk créé meurtre ci kaw suuf adama jooyu lool li mu doon jooy mooy fu ñu tuddatee meurtre rek daan ci associé doomu te doomu yonent la te xam na ni meurtre yi dana bare ba àdduna di tukki ndax liir na livre bi histoire sainte nekk mu ni fu ñu nekkee diw rey na diw rek daañu ni ab doomu aadama mës na rey moom it moroom muy jooy jooyu xol fi muy jooyee jooyu xol yàlla waroon ñëw dal di koy consoler yàlla jaare ca détruire lépp li Adama liggéeyoon ci digganteem ak garab yi seetal boobu métti yaa ngi toog di jooy sa jooyu xol ñu détruire sa mission ci garab yi garabu siddéem xëy am ay déem garab yu commencé di weex te weexuñu woon frontières yi commencé dagg dex yi di dagg ay parcelles de terrain yu rëy di dem te aadama fexe woon na ba mission mu associé ci nit ñi garab yeeg réalité yooyu yëpp mu incarné ba nga xam ni garab yëpp fa neexoon weex nañ yi amul woon dëkk am nañ leen mu tourné yàlla laaj lu tax yàlla ne yéen a te bu ñu nee yéen rek du du génn seen famille kon jooyu xol bi gën a empiré ko naqar di la am mu ba fi jóge te ñëpp ku ñu wax nga ni aadama sama maam la te aadama ci naqar la dund ba ba mu fi jóge te yonent la ndax naqar bi mooy xaabil ak xaabil lañu weer waaye muy espérer ni dina am koo xam ni bu ñëwee dana jël relève fexe ba li doon injustice dellu di justice bi mu xalaatee loolu yàlla jël yeneen ti yàlla siis génn ko teg fële te àndul ak seex àndul ak seex kon amul ku ko accompagner amul ku ko accompagner ñeneen ñëpp di seex diggante góor ak jigéen mu xëy génn yeneen yàlla siisa te amul ku ko accompagner kon juddoom rek xamal na ni kii bu nekkee yonent yi dana tubaraat yàlla noonu la bëggee mission adama yëgaat ni ndekati kon du am héritier ci kaw suuf logique bu yàlla la yàlla logique am ndono bokku yàlla logique am ndono bokku ci moo tax ku gis mu toog rek di xaar am doom ju ko doon c'est parce que xamul yàlla yàlla logique am ndono bokku ci yoonam nekkul ci nga am doom ju la ak doom ju la yoonam nekkul ndax moom sax bu da sa doom doonee du ko tuddee ndoona pas-pas la koy tuddee moo tax mag ñi daan wax toog di wax damay xaar sama bàyyi jóge fi ma jël ay awraad nee nañu fa la dellu gannaaw yam ci diine ndax nee nañu li war sa bàyyi ci kër gi moo la war te fii léeg-léeg nga koo xam ni bés bu xëy mu ni yàlla naa am doom ju ma doon te du logique bu yàlla du logique bu yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu ñit gis nga lam nga sédd ci Sayyidatuna Fatima te Sayyidatuna Fatima di jigéen waaye fexe na ba doom yi nga xam ne ñu ngi doon xalaat ni daañu doon yonent bi mu génn ñëpp àdduna ca bu ñu nekkee xale bu yàlla li mu gëm mooy ndono ci côté leer te bu boobaa foog ñu associé ko ci moom yàlla parce que yàlla ku fiir la ca na ma doxle ndax nee bu dellu seen ndono ci côté famille su neexee borom kër gi ku ko neex mu xëy désigné la ni yàlla mu ni kon damay rejeté loolu dellu si ndono ci côté leer ñu associé mu ci ndax bu dee leer may tibb kenn du tibb ni kon damay xool ku ma neex rek ma jël leer bi jox mooy discours ba mu mujj te nii ba mu mujj te ci kanam mu xam Muhammadul Habib ñu di ko wax Seydi Ahmed mu wax que ni kay yàlla logique am ndono bokk ci ndono familial nag la gën bañ te comme dama signé woon ak moom nit lu mu bëgg rek ca lay nekk ba ba mu fiy jóge di dellu rey kon pour ngeen mën ma dimbali Cheikh ko wax doomu ne ni ko pour ngeen mën ma dimbali ca la ma woon ak borom bi dellu leen ay lu maa bu ngeen ma dencee ba ngeen fi toogee rek dimbaliwu leen ndax léegi nu ñëw def leen xalifa léegi nu ñëw def leen imaamu jàkk te sama xalifa yonent bi koy tànn kon bu ngeen ma bëggee dimbali dem leen moo indi dem bi ñoom Muhammadul Habib dem anarchie boobu bëgg nañu dimbali Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif te la mu wax ni yàlla logique am noonu familial moo tax kuy ñaan yàlla na def attention ci li ngay ñaan ndax leneen nga ñaan que lu koy énervé te fekk na yow bi ñaan yóbbu bokk na ci li ko may ma doom ju ma boo waxee doom ju ma doon mooy beew nga ndax fu mu ne yaa ngi qualité yëpp yaa ngi marto yëpp yaa ngi cër yëpp ba war am doom ju niroog yow te ñu bari duñ ci def attention moo tax mag ñi daan wax à la place ci ñaan doom ju ma doon ñànk doom ju baax lu am solo ñu ne à la place ci ñaan ko doom ju ma doon ñaan ko doom ju baax lu am solo boobu ci réalité xayb lay dellu ndax bu dellu see ci aada kenn du ko mën a dégg looloo tax yonent bi dee leen sànk yàlla wàcc ko ci kaw suuf rek mu yëgoon ni priorité lenn te mooy xeex aada waaye du ko mën a xeex mukk ak pression familiale bi mu a fekk moom xamoon na loolu yàlla ni dinaa fexe ba protéger ko ba kenn du ko mën a chantage waaye dinaa ko protéger ci pression familiale jël waaye juróom bu góor génne ko àdduna laata muy jot te mi ngi doon préparé juddu yonent bi moo tax sunu réew mi sunu aada li mu changé ci diine kenn xamul na mu doon ndax fii soxna su tollu diggante ñu ni ëmb na doom bu bàyyi bi génnee àdduna laata muy juddu dana am nun sunu àddu tur bu mu ko wutal te yonent bi bàyyam génn na àdduna laata muy juddu nag mu ci ba aada bañ ñu yóbbaale yàlla di di fexe rek pression familiale bi bañ am ci moom ñu waxati mu jëlati yaay ji ñu waxati mu jëlati maam ja ko doon yaay ñu waxati mu jëlati ka ñoo tuddee protecteur mu bëgg jaaxle mu ni ko wallaahu yaxsimuka min dénk sa protection ñi la entouré dafa ni boo amee problème sa yaay la mën na la préserver dafa ni boo amee problème sa papa mën na la protéger dafa ni boo amee problème membre administration bi am influence mën na la protéger te fekk na protection nekkul ñoom ci seen loxo ci loxo yàlla la loolu la yàlla doon jàngale ci yonent bi ni ko bul jaaxle wallaahu yaxsimuka min annaas ndax boobu abu taalib taxoon na ñu bare ragal yonent bi taxoon na ñu bare ragal yonent bi bu ñu waxee rek ñu ne am na ci loo xam ne boo ci duggee moom mu ñaaw ci seen diggante te ne moo ñaaw mooy suñu notable yi fi am suñu suñu nit ñu am influence yi fi am bàyyi ngir seen jaarbaat bii nga xam ni moo dul la jël tey waaw mag ñi laaj lu mu la ñu ni parce que dafay indi lu nu xamul loolu yàgg na ci histoire mi ngi xëy weddi su suñu yàlla yi nee na yii duñu yàlla yàlla moom mooy yàlla te ñun sunu maam mësuñu wax benn baat ci lu ma tëri kan te bu doon dëgg la sunu maam waroon nañ ko wax indi confusion ñu ni waaye buñ ko exterminé rek mission bi dootul continuer moo tax bi ñu gisee yàlla fexe ñi jege yonent bi yëpp ñu ni génn nañu àdduna ñu kontaan ni amatul protection fekk xamuñu ni protection ci yàlla la nekk moo tax ñuy jàng nit mu jël gëdd gi nga xam ni moom la warloo yàlla mu delloo ko ko mu wërsëg ndax di nga toll situation yàlla rek moo la ciy génne waaye lu la ci yàlla di génnee yi dafay dellu ci coobare moom borom bi xooleen yàlla génnee yonent bi ci situation boobu dëkk bi la gën a neex ci nga am ci plein droit comme yëpp ñu xëy ñu la génnal te nga jël béti xëy ñu la génnal te nga dem métier waaye fekk na boobu yonent bi gën a lu ko woon bëggoon na des màkk ndax màkk la xam waaye fekk na itam ray bu yëgoon nañ ni la nekkoon lu essentiel ci màkk la nekkoon lu sacré ci màkk la nekkoon la tax ñu naan màkk dëgg la fa des symbole rek la mais loolu yàlla transféré na ko Médine transféré na ko Médine màkk nag symbole baa fa kaaba gaa fa ña fa nekkoon nit ña nga fa waaye yàlla transféré na la la ëppoon importance métier wax ni yonent bi na dem métier parce que yonent bi warul teg tànkam lu dul ci suuf soo xam ne terre sacrée lañ koy tudde te fii ay symbole moo fi des mu ni demal métier yàlla day transféré ay symbole foo ko neex ku ko neex mu transféré farisien bu tax ku defe ni symbole benn place la koy teg dootu ko yëkkati nax nga sa bopp nee na ko doo dëgg sa tànk lu dul ci terre sacrée te Médine laa def terre sacrée actuellement kon faw nga dem dëkk te Médine waaye yëgoon na ni war na delloo si waat secret boobu ca Màkk lu yéeme la ci organisation yàlla xam nga léeg-léeg nga dégg ñenn nit ñi laaj ndax war nañoo dem aji màkk ci jamono yu ñu toll ñu bari ngi posé question boobu ñu wax leen lu tax ñu ni ndax dañu dégg ñu ni xaalisu aj bi dañu koy jëndee arme pour bombarder Yemen waaw am na ñuy laaj loolu wax ndax war nañu dem ñoom aji ci at yi yéen ñu lu tax ñu ni ndax gis nañ ni budget bi su paree nu dem jëndi arme pour bombarder Yémen ñu ngi ci guerre waaye laaj la boo xam ni boo ko seetee ba biir sax jalu ndax xaalis bi yàlla la mu wax ci alquran du day inna ilayna iyaabahum summa inna alayna hisaabahum waaye budget bi jëm ci aj bi bu ñu nee ci aj bi la jëm rek day génn exclusivement ci domaine u hisaab dugg ci domaine yàlla moom ak nañoo gérer ay symbole kon sa yoon nekkatul ci foofu yow doxi sa farata moo la yóbbu doxi sa farata li ci des nag fañ koy jël fañ koy dugal loolu seeni mbir la ñoom yàlla waaye du yow yaa koy su ko defee yàlla lay secret ba ngay wuti mën na ko def ci sa ruux ndax secret la dem tawaaf dem naan ci samsam zam bi dem fon xajaratul aswad benn bu ca nekk nii nu koy symboliser rek du loolu la ci yàlla jub secret bi la ci yàlla jub te mooy dem màkk ñu yëg ni secret dem màkk bi inséré nañ ko ci yow ku ñu nangu ajam noonu lay la bari na ku dem fekk tourisme rek la def bari na ku dem fekk tourisme rek la def waaye bari na ku am yéene dem fekk secret bi inséré nañ ko ci moom ba noppi bu demaatee formalité bi lay dox doxal formalité bi daal di tawaaf daal di naan zam-zam daal di fóon xajaratul aswad daal di daw sa paak marwa ñu bindal ko yiw bi ñu koy bindal mais fekk na yiw bi bindal nañ ko ko laata muy quitté même kër ga mu dëkk tax mu lu jar bàyyi xel te itam am na lu ci am solo te muy li nga dégg léeg-léeg mbokk di ko def muy dellu si ci tàggoo tàggu nit damay dem màkk ren tàggu nit damay dem màkk déwén lu jar di contrôler la ndax mës nañu gis benn dossier boroom dafa dem tàggu ñi mu yaakaar ñi mu yaakaar xam naa ci côté alal ak ñi mu yaakaar ni ay nawleen lañ mu wax leen ni dafay dem màgg muy tàggoo ba yam ci benn dëkkandoo mu xeeb dëkk ndax dëkkandoo boobu amul dara dafa luye rek benn chambre ci benn kër mu xeeb que ni kii jarul tàggu te tàggoo ni ci koñ bi yëpp mu dem màkk aj ba noppi ya mu waroon a def yëpp mu def ñu gis ci dossier am ni nangulul gaa yi rejeté nañu aj bi ñu consulté xool ñu ni parce dafa indaale xeebaate ci màgg mu jaaxal ñu parce que bu tàggoowul woon mën na am ni loolu du ko ci fekk ñu ni dafa indaale jukko xeebaate ci màgg nu rejeté aj bi te bu tàggoowul woon ba gis ko nga xam ni mu nga luye benn chambre mu ni kii du ma ko tàggu mën na am loolu ko ci tere waaye fekk na yàlla jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déplacé ko mu dem ci terre sacrée bi mu bàyyi leen ak symbole yi yonent bi nekk fa mission nekk fa mission ba yàlla may ko mu delloo si waat lenn ci secret symbole yi mais bàyyi bàyyi ca Médine nag terre sacrée boobu doon dëgg tànk yàlla ko mën a organiser wax ko may nañ la nga delluwaat màkk ndax victoire bi acquise nga ko ba noppi mais lenn ci symbole yi delloo ca secret waaye terre sacrée bi bàyyi ko métti moo tax mu ba mu ba mu demee ba génnam àdduna jot nu ni ko yonent yi ci terre sacrée lañ koy suul moo indi lu suul ko métti te loolu loolu tax mu suul ko Médine mën ko fa yóbbaale ba muy ba muy génn màkk di gàddaay jël seetal boobu organisation li tax nu suul ko Médine secret ba mën ko yóbbaale ba muy génn mag di gàddaay jël Médine génn àddunaam jot nu ni ko yonent yi ci terre sacrée lañ koy suul moo tax yonent yu jëkk yi bari nu ñun ci suul xay bu sulli man léeg-léeg bu ma gisee nu def seen xabru ci image fii la nu dencoon yeneen yàlla yunus fii la dencoon yeneen yàlla yuusuf fii la nu dencoon yeneen diw parfois ma gis nit ñi di commenter di àllaa na naa image bi daal ngeen di commenter waaye xaqiqa ba xëy bu yóbbu nañu ndax néew na yonent bu bàmmeelam des ci jamono yi ci biir suuf néew na ndax ci terre sacrée rek la ñuy suul yonent te terre sacrée bareetul terre sacrée bareetul dafa fekk nun fii dañuy jaawale terre sacrée ak terre sainte te bokkul terre sacrée kooku rëddu waa xaybu la terre sainte ndoonu lumière la waa xaybu mën nañu xëy léegi rëdd sa bunt nu tuddee ko terre sacrée léegi mën nañu xëy te nekku fi woon daaw nekku fi woon sant suuf ngoon jot ñu ñëw rëdd ni fii kat terre sacrée waaye terre sainte daf fii nekk ay ati at dañ koy programme ci ca livre ba ci kaw su ko defee ñu ne yonent na ci terre sacrée lañ koy suul moo tax terre sacrée mën nañ ko transférer jëli ko fii yóbbu ko fële jële ko fii yóbbu ko fële dafa naa Cheikh Moussa Fall la parce que ma ko wax fii mu ni dama gént Mawlaay Chambre Tijani di la wax ni su la neexee nga transféré sa xabru bii ci biir Medina Cheikh indi ko fii mu ñëw nettali ko ni ma dama gént Cheikh di la bu la neexee nga transféré xabru bi nga indi ko fi ma ni waaw parce que xabru bi terre sacrée la rey bi ñoo ko rëdd Medina Cheikh terre sainte la dafa boole terre sainte ak terre sacrée terre sacrée mën nañu ko transféré te si la ñuy denc yonent lañuy denc yonent moo tax xutbu zaman bu génn àdduna rek bu xutbaan yu nekkee ci moom que ça soit muy xutbu zaman wala muy xutbul axtar dinañu conk ci suufu teer sacré suy ko ci xabru bu dee fi denc du teer sacré te léeg nga gis dëkk lëmm benn place moo ci nekk teer sacré moo tax xutbu yi bare balaa ñu fiy jóge nga dégg nu naan nanu ma denc ji ci béréb nanga am na ñu bare sax daf leen di jaaxal pourquoi nga tànn béréb bu mel noonu c'est parce que parcelle de terrain boobu tax sacré la ñoom léeg-léeg koy wax su ko defee yonent bi jël secret ba yóbbu ko Médine nu def ko terre sacrée wul màkk di nekk terre sainte ndax delloo si na fa waaye boo seetloo yàlla noonu mu organiser dund yonent bi dafa am lu mu doon bàyyi xel rek li mu doon bàyyi xel mooy yàlla dafa gis ni qualité yi ñu seede ci yonent bi yëpp ndekete ñi ko doon seede gëmuñu ko al lu mu la wax dëgg la nii la baaxe yow mën dem weesu na fokk nat ndekete boobu mission bi génnul ren parce que baatu al amin ba ñu ko doon wooye émission bi génnee dañu ko changé dañu ko changé ni li muy wax du dëgg traité ko de menteur yonent bi met ndax yonent bi la mu gënoon a bañ la mu gënoon a bañ mooy ngeen li ngay wax génn ni lu mu la wax du dëgg nan lay demee asamaan te nee dem tam nan lay gisee borom bi ba mu di ko yónni sax nan lay gisee malaayika yonent bi ko naqari moo tax bis Seydina Umar Xattaab ñëw na ci moom ni ko baadu lii mooy fayu prophétie dañoo tuddee nubuwa yonent bi ni ko lan mu ni ko metti bi la màkk di mettital baadu mooy fayu du la si bindal bàkkaar ci li nga wax mu ni ko lu tax mu ni ko ndax sa bravoure moo tax dangay jàmbaar du du da nga bañ dogalu yàlla sa kaw mais da yëg ni mënoo dëkk ak nit ñi ci bis bu nekk ñu di doo wax kàddu dëgg te fekk exterminé woo leen mu ni ko kon sa bravoure la léegi nag Umar ni yonent bi yaa ngi may bëgg jaaxal yonent bi ni ko lan la mu ni ko ndax yow yaa ma gën a brave kon nag lu tax yow nga bàyyi leen yonent bi ni ko sama sagesse moo tax du ma dal seen kaw lu dul ci ndigalu yàlla foofu la njëkkee yëkkati baarama moom yonent bi joxe islaam wane ni religion de paix religion de tolérance duma dal seen kaw lu dul si ndigalal yàlla moo tax boo bëggee jël alxuraan utilise ko pour dal ci kaw nit ñi du sotti du sotti ndax alxuraan zaman bu nekk ki ko war a interpréter mooy nekk amirul muminin mën nga jàng li la ci jote jàngal mën nga tafsir li la ci jote tafsiral mën nga déglu li la ci jote dégtal waaye pour nga nag mën a waat ni dama war a jël samay matukaay def nii def nii def nii ca kaw ñu dul julli loolu ndigal la bu war a jóge ca amirul muminin te amirul muminin léegi islam daf koy protéger islam du ko siiwal ndax yonent bi waxoon na ko Ali Abu Talib yonent bi waxoon na ko Ali Abu Talib ni ko conflit conflit pour bañ amirul muminin a am ndax ñoom dañu defe ne amirul muminin sama ndonn la te comme damay am noon ci bu may dund am noon ci bu ma fi jógee kon faw sama ndono yi dinañ ko sonal seetal ku mel ni yonent bi mu wax Ali Abu Taalib ni ko ñoom dañu jàpp ni amirul muminin sama ndono la te comme man damay am noon ci bu may dund am noon it bu ma fi jóge kon forcément rek fu nu dégg amirul muminin la daan ko jugal Aliou ni ko na mu mënee nekk mu ni ko na ko jàngat ci li ci sa gannaaw te boobu mën ko doon junji empoisonnement wu Assane ak assassinat wu moom la ko doon junji loolu la ko doon junji mu ni ko na ko jàngat ci li war a xew sa gannaaw la boobu junji na ko empoisonnement wu Assane ak assassinat Ousseynou bëggoon ko xamal ni que ñeneen di assassiné danoo ragal ñu doon ñu ma ndax jàpp nañ ni suñ ma doonnee seen baat rek la julli yi di déglu dootuñu déglu keneen jullit yi tombe ci piège boobu jullit yi tombe ci piège bi ndax weesootul nu tombe ci piège boobu mooy noo déplacé ñoom Hussein ñoo ko déplacé ñoo déplacé imam Hussein wax ko ñëwal doon suñu imam te yonent bi prédiroon na loolu aliou ni ko bis bu ñu déggee ni mi ngi bëgg doon amirul muminin rek na xam ni sama noon yi ba léegi ñu ngi bu mu fi jullee ñu ngi fi ba bi ñu déggee programme bu jullit yi ak yu bari yu ñu bind imam Hussein pour mu ñëw mu ne ah li mu doon bañ am na dañu ko fi bëgg def nag àndiwul ko bi ba mu fi jógee nag islam commencé protéger envirul mu'minin dem ba ñu fésal ko ci awliya yi xut bu zaman yàlla wàcceetul ci amirul muminin yi ku ci amul pouvoir pouvoir boo xam ni ku jëm ci kawam rek mu exciter bi la daf leen jox ngànnaay daf leen jox ngànnaay te la ca doy waar mooy ngànnaay boobu di pouvoir mystique bi yàlla jox xutbu zaman yi pourtant sayyidatuna Fatima moo ko laye sayyidatuna Fatima moo ko laye moo layal gànnaay ndax keroog ba nu assassiné doomu di Seydina Xuseyn ak nañu ko décapité yëpp bopp bi di ko football di ko paasante ci koo xam ni foo ko fekk yonent bi mën ka daan tilboo saxaaba yi dañ daan dem ba yonent bi yow xam naa ni bu fekkoon te ni doowoon ku gën ku gën ci ñu yàlla bind kon sa ñaari sët yi daan yàqu sa mission ndax tànnatoo lu dul ñoom bëggoo ku leen dóor bëggoo ku leen laal bëggoo ku leen waxtaan te fu ñu la fekk rek yàgg leen tiggoo yonent bi ni dama leen sopp ñu dem assassiné Seydina Hussein te ñi ko assassiné dañ doon bañ mu doon amirul mu'minin ndax defoon nañ ni boobu jullit yëpp bu ñu ko jiitalee rek àdduna bi yëpp moom moom la ñuy mu doon lu yonent bi ñoom loolu lañ doon xaar ci àjjuma fekk nekk ma nga xëy ba waaye fekkee na assisté na assassinat moo tax Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani Chérif ni ma mësuma gis way jur bu am lu ko naqari ba mel ni Sayyidatuna Fatima ma ni ko lu tax mu ni ma ndax assisté na assassinat doom te seetal rek waaye jur bu fekk bu fekke ñu rey si doom rawatina na ñu reyee nag Seydina Ousseyn mu naqari ñu dagg bopp ba mu tourné xool bàyyam di yonent laaj ko ndax di seetaan lii ca xay bu de Fatima ni yonent bi ndax dinga seetaan lii li ñu def ko sëy yonent bi ni ko ëpp na seetaan ci organisation yàlla la bokk ñu assassiné waaye ña yor bopp ba duñ ko nettali xamuloo bopp Seydou Seydina ko Seydou ba léegi ma nga asamaan bi ma nga xëy ña ko doon garde ci sàkket ni bu subaa ñu exposé yàllaa yebal benn malaayika mu wàcc ci asamaan gàddu jaas yi di leen rend kenn par kenn ba juróom-ñaar yee jeex mu jël kenn ci bopp juróom-ñaar yi sànni ci digg bi gàddu bopp Ousseynou Diop yonent bi ni du lu ñuy seetaan waaye fekk na loolu yëpp taxul Fatima xolam seet mu jële ci yére bi Seydina Hussein sol ñëw exposé ko ca musée ba ca ni ni ni deret ji bu mu fet ba yomal xiyam ba ñu ko assassiné ñëw ñu wekk ko ni gis ngeen ni ngeen def sa yonente ba léegi yéen baa nga fa ak fett yéen ca jam boo tax benn xutbu zaman ni ma dama doon jàng benn téere ñii ni jam nañu Ousseynou ñetti téeméeri jam juróom-ñaar ñii ni ñetti téeméeri jam ak fukk ak ñett ñii ni ñaari téeméeri jam ma ni xaar ma ñëw fi wàññi jam ja mbind ko mu ne ci yu bare xamuñu ñaata yoon ko jam mu ne ma ñëw fi wàññi ba ndax yëre baa nga nu exposé sa musée ba waaye Fatima amul xol bu set ndax ni ñu ko def mu gaar ko boroom mu gaar ko boroom di yàlla wax ka ni que lii sama bàyyi jaarale ci man doonte yàggul ci man muy lumière xurbaan yi instant bi mu jaaree ci man rek yëg naa lu ne ni amul lu mu mënul borom bi ni ko dëgg ndax ci sama ay ngëneel la bokk Fatima nag ni ko li ma lay ñaan mooy nga jël loolu amirul muminina bu ñuy désigné ci rek te te décision bi jógee ay ba nga def loolu ci moom yàlla ni ko nangul naa la ko moo tax kenn dootul mën a nekk amirul muminin boo xam ni décision ba ay bu ñoo ko jël te fekk amuloo garaatu xutbu zaman te fekk amuloo garaatu xutbu zaman moo tax lu toog ak diir amirul muminin a amul suuf si jaxas clan yëpp daal di formé wu ba ci nu tuddee chi tuddee chi ku nekk formé ku nekk formé suuf si jaxasoo nuy xaar xut bu zaman dem ba am pour ñu mën dëggalaan ni amirul mu'minin am ndax il faut buy ñëw ci cette fois-ci mu ñëw avec ses armes ses armes mystiques ses armes mystiques mais d'une puissance extraordinaire ñoom nu leen neex nañ koy jëfandikoo ndax kenn limité wu leen ci su ko defee ñu jox leen ko ñu ñëw nag pour wax waaye suñu waxee dañuy wax ngir julliti yàlla nag ni ñooñu la ñuy déglu pour ñu teg tekki aay wax ni aay bi lii la jublu ca ña nga xam ne ñun ak ñoom bokkuñu diine pour ñu appliquer te ku ci yàlla indi rek sagesse la la muure moo tax mag ñi daan wax bu leen dévier bu leen dévier ba fàtte baatu amirul muminin ci kaw suuf ndax bis bu déviation amee rek kawoo te tey moo indi kawoo bi xamul tey moo indi kawoo bi ndax da ngay xëy ba mu neex la interpréter alquran ni song leen nit ñi interpréter alquran ni song leen ña ca jàkk yi interpréter alquran ni jël leen arme rey ay nit bu ñu waxee nga jàng ay jàng ay jàng ay ci déggoo li ngay jàng ndax yàlla kóllëreem ëpp na fonkam kóllëre moom borom bi ëpp na te yonent bi yabal na Jaafar boole ak groupe de personnes ñu dem ci ñoo xam ni nun ak ñoom bokk nu ñoo ñu protéger leen en Éthiopie ñu dem ci ñoo xam ni ñun ak ñoom bokk ñu ñoo ñu protéger leen te yàlla ku fonk ko lëral moo tax du dellu di mën a utiliser kon téeréem di wax ni song leen ñi ngay bokk lu religion alxuraan bu jógee dafa naan jullit yi défendre leen seen bopp waaye na ngeen fexe ba na nekk lu légitime na nekk lu légitime te nag xam lu légitime ba mën ko défendre lu jafe la Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif waxtaan nañu ci kaw Israël digganteem ak Palestine mu limal ma mouvement yu bari yuy xeex foofu ni ma pourtant benn benn moo ci légitime am ngërëmal yàlla tuddal ma tur mouvement te te lim na yu bari lim na yu bari lim na ba am na bu mu lim bu nu tuddee la jihaad islami te waxuma boobu moo légitime de tuddal ma benn ni ma moo ci légitime te moo amee ngërëm la ni ay borom vision la ni ay borom xel la te ci ñoom mu ni ci ñoom la jàmm ji te tey ñëpp rawatina occidentaux yi nee ci ñooñu la ay yi mu ni ma bis boo fa demee dëgg fa tànkee na la ñooñu dal bul dal ci ku dul ñooñu ci keneen koo dal yaa ngi tardé sa proposition pour wax la ni cheikh lépp lay prédire du bàyyi ba dara agsi te ba ma xoolee mouvement boobu bind nañ ni ñoo ëpp ay ndek nee nañu jàmm waxul ñu ci pour wax la kon fii ni ni interprété wàllu jàmm ak ni ko nit ñi di déggee bokkul Fatima dal di ñaan loolu ñu may ko xutbu zaman yi ñuy seen muy seen arme seen xutbaan yi di seen arme ñu indi leen nag ni lañ leen leen déglu ndax ñoom ñoo mën a déchiffrer décoder les versets coraniques ndax ñoom doomu ñoo ko dégg la ñoom doomu ñoo ko dégg li tax mu dégg këyit la daloon yonent bi moo leen dal wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha xam nga yàlla bu demee ba utiliser sa làmmiñ di wax boobu looy waxe ci dëgg lay doon yàlla bu demee bay utiliser sa làmmiñ di wax boobu looy waxe ci dëgg lay waaye bis bu bàyyee sa làmmiñ ak sa xel rek bu boobaa mën nga wax ba noppi dellu si dabaat nga wax ba noppi si dabaat yi moo tax ñu ni ko faw nga protéger amirul muminin yi ba bu ñu waxee rek ñu xam ni yow yaa wax Sayyidatuna Fatima ñaan ko ndax assisté na ci nañu def Sayyidina Huseyn loolu touché ko mais muy lu yàlla nammoon pour delloo si war jullit yi tegaat leen sur les ndax yàlla dafa fonk yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ko lu ne kon bëggul yonent bi ñëw enseigné la moo enseigné yëpp dellu mu mel ni mësul jaar ko loolu mooy feeñ ci aaxiru zaman Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani defe ni yonent bi nit dina dem ba ni mu ko waroon bàyyee xel du ko bàyyee xel te boo ko laajee mu ni taalibe yonent bi soo ko laajee mu ni taalibe yonent bi te nee na dootu ko bàyyee ñu ni lu tax mu ni ndax du ci am lu dul ñu way ko mu fett mu ni waaye boobu garaawul mu ni bi gën a grave mooy ngay dem ba yonent bi di sa sëriñ ngay sabote sa sëriñ di sabote yonent bi te di jullit ñu ne ko kenn xanaa du sabote yonent bi mu ni sii ndax léeg-léeg nga dégg nit di ko tagg fekk daf koy sabote di ko tagg fekk yaa ngi koy sabote ndax yaa ngi koy tagg ci biir soirée dansante yaa ngi koy tagg ci biir talibé yaa ngi koy tagg sol baxa boo xam ni da ngay tiitoo te bu dee réew mi lu gërëm la li taggkatu yonent bi la taggkatu yonent bi la lu kenn xamul lu bu ñu ñu xamoon ñuy tagg yonent bi fi ñu leen di placer ëllëg dinañu xam ni bokk si yombul xam ni bokk si yombul ndax seen palais spécial la ñu amee ci biir seen palais ñoom ak palais noddukat yi ñoo dend seen palais ñoom ak palais noddukat yi ñoo dend ñu taxtal leen ay càqu wurus pour ñu xàmme ñu nit ñii ay ndono bilaal la ci loolu lumière ndax ñoo doon noot ñii dañ daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen làmmiñ ak seen dund yëpp dañ ko utiliser pour moom ñu taxtal leen ay càqu wurus ñu dend bale ca àljan moo tax yenn nit yi yàlla day sànni kéemaan la ni ma dama gis kenn ci télévision bi muy tagg yonent bi ma mer mer mer ndax ma doon def ma daw jël chef bi ma xool ñu bokk ci pale bi ma xool xool gis ma tudd ko ni heureusement eh, bu di tëb sol baax di tëb ci ay tëb di tëb yu kenn xamul rek dafay meraloo mag ñi ndax dañu xam yonent bi ñoom dañu xam yonent fii léegi ci jàng yi rek ngay gis koo xam ni day dem ba ni yére ba moo sol pour tagge ko parce que dafa bañ ku ko jox weccit bu tuuti xam moo tax sol lii tàllal loxo wax wax way way yooxu kenn xamul su ko defee ñu bëgg folklore nag insérer ko ñoom ci seen cérémonie religieuse insérer ko ci insérer ko ci ñi daaw ñu def na mag ñi bu ñu daan tagguloo nit yonent bi dañuy bàyyi ba xaal bi nekk ci yow te xaal bi ñu ngi la koy tarbiya ci wëgg ci laazim ci xadaratul juma te lañ la daan tarbiya xaalu salaatul fatiha bi nekk ci yow ñu xam ne boo yëkkatee kàddu ngir yonent bi da koy yëg waaw ndax yonent bi li mu gën a bañ mooy yàlla la gën a te tey bare na loo xam ne delloo si nañ ko ci moom delloo siwul ci moom ci aada lay si moo tax dem na bés moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax yàlla ca màkk ni ko bëggatuma dégg baat boo xam ni bu lay offensé yow borom bi ci seen intimité borom bi laaj ko ban baat moo may offensé mu ni ko mooy baatu aada waaw sunu maam yi la gënoon a xam yàlla léegi nga ñëw bëgg ñu ko jàngal te seen maam yi yàlla bu mu xamul mooy yàlla xër waaw baat la buy offensé borom bi borom bi ni ko naa la ci wutal pexe mu ni ko pexe bi mooy naa fexe ba lépp lu jógee ti ci xayb nga enregistré boo ko enregistré ba noppi soo demee bay dallu ngay déglu enregistrement lay jógee xayb yow dong yaay am satellite boobu boo xam ni bépp donné bu jógee xayb dana la ko enregistré te da nga ko mën rediffuser di ko seet yonent bi ni ko nu may def ba nekk ci man yàlla ni ko damay créer tampon bi ci yow créer tampon bi ci yow muy tampon bi nekk ci dëggu gannaaw tampon boobu moo doon enregistré données ay bi benn par benn bu jógee xay bi rek mu enregistré données bu ñëw mu enregistré bu yonent bi dallu bu di ko rediffuser jàkkaarloo ak moom yàlla ni ko boo demee ba données yi di la déranger ndax léeg-léeg am sa intimité ak sa famille soo demee ba données yi di la déranger na nga tëdd jaaxaan boo jaaxaanee bu tampon bi féetee suuf dootul opérationnel tànk féetewul kaw moo tax yonent bi bari lu mu daan tëdd di jaaxaan pour bañ déranger entourage waaye bu daan tëdd normal nday joor day tëdd ndax tampon bi su demee ba féete suuf dootul opération seetal boobu organisation bis bi léeg-léeg mu tax di rediffuser image yi di seetaan benn par benn Sayyidatuna Aïcha comme moo nekkoon koo xam ni bu daan dugg ci néegu yonent bi awul fëkk ndax dafa naan borom këram la te xale la woon moom day ñëw laal bunt bi commencé wax wax du xam ndax yonent bi mu ngi ci dallu su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jaax dootul opérationnel mu wax ak sayyidatuna Aïcha la muy wax ak moom yonent bee ngi toog sahaaba yi ñi nga ko entouré Ababacar ñëw dal di laaj yonent bi ci yëwal ni yonent bi yëwalee nga xam ni ku tabee Ababacar posé ko ci question te question bi mooy mu wax yonent bi ni ko ndax doo dem ba nekk victime ci sëy yooyu yonent bi ni ko lu tax mu ni ko parce que dama yëg ci màkk ni wax ni sooy génn ni def wecc ci sa poos walla nga def suukar ci sa pos wala nga def tàngal ci sa pos donte sa kër la jëm boo moytuwul du ak si sa biir kër Ababacar ni dama dégg ñu koy wax mu ni léegi nag ma doon laaj boo demoon ci marché bi di dugg yonent bi la posé question ndugg mi jëm sa kër nga daje ku ko soxla ndax da ngay yóbbu ndugg mi ba ci sa kër wala da koy jox parce que man ci yow laa yore bi mu ko waxee yonent bi ni ko ruus naa ruus naa man Muhammad gàddu lu nit soxla romb ku ko soxla mu ñaan ma te jox ma ko ruus naa Ababacar ni ko kon na nga jàpp ni sa soppe dina sonn mu ni ko kuy sama soppe mu ni ko man ndax ñi ngay def rek laa bëgg di def moo indi woon yëwal Ababacar ndax ñu bare ngi ni Ababacar dafa yëwal xamuñu ni Ababacar yëwalu yonent bi la doon roy Ababacar yëwnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon doy moo tax mu meloon na mu mel su ko defee nag yonent bi dem ba ni ko kon def naa la soppe ndax soppe dafay bëgg nuroog ka mu sopp te comme nee nga ni may doxale lay doxal kon baax na mën koy sédd dégg naa ku ko ñaan benn mbubb sax du la may benn ñaar la lay dégg naa nee na fu islaam soxloo teere nee bu ñu dem di ko wax kenn nañu ñëw directement wax ko yonent bi ni ko kon li nga dégg mooy li nga bàyyi fa Seydina Umar dem ci sababa daal di wax Seydina Ababakar ni ko lan gis ci Seydina Umar bi mu ko waxee rek Seydina Umar daal di koy wax réalité bi mooy Seydina Umar Ababacar seedewaat na ci moom lu tolloo la mu seede woon ci moom mooy Ababacar ni yonent bi man di dégg naa loolu Umar nee na fukki jullit taxawatee téeméeri yéeféer taxaw nee nañ ko bàyyi cinquante yi te res cinquante mu ne kon mësuma gis ku ko gën a jàmbaare waaye mu ne bi ma yéem moom mooy dégg naa ñuy nettali ni Umar nee na bu yéexee songatee songu guddi ëpp na dem di yee yonent bi nee na la fëgg nee na la déranger nee na ko yee moom bu xeexee ñoom ba fajar bi xar ba ñëpp yëkk daal mën nañ ñëw waaye comme guddi la ku nekk ngay nopp nee na continuer ka ka njëkk yëg nag naka yee moom doom Ababacar nii yonent bi kon man mësuma gis ku mën a protéger jullit ñi ba mel ni Seydina Omar yonent bi bàyyi leen delluwaat ci Seydina Ali laaj ko lu mu xam ci Seydina Ousmane Ali ni ko Seydina Ousmane dégg naa nee na pare na pour tayle këram ngir islam këram gi mu dëkk waxuma alalam këram gi mu dëkk dégg naa ñu nit nee na pare na pour bis bu islam soxloo valeur bu ni toll mu tayle kër ngir islam àlli man li mu jaral Ousmane sax yëpp na ma ndax defoon naa ni dëgg la gaa bëgg ne islam waaye jaralu ko yonent bi bàyyi Ousmane bàyyi Seydina Ali dem ci Ousmane laaj ko ci Seydina Ali Ousmane ni Seydina Aliyu li ma neex ci moom mooy li mu bokk ci ñi la njëkk gëm dèjà loolu dama ko ci naw mu ni beneen bi mooy dama gis mu yore benn jaasi bu kenn àttalul ci ñoom ma xam ni kon jaaseem dootul mbiri saxaar mbiri xay doon mu ni beneen bi mooy munoon na wax ni maa njëkkoon gëm xeex naa ko sonn ci yoon bi wax nañ ma lu nekk léegi yéen jiitu leen ma topp seen gannaaw waaye ma gis ni fu lu baax dee ñëw mu reculer bàyyiwul seet fu danger dee ñëw mu puus ñu yëkkati kan ni moo tax mësuma gis ku mel ni moom yonent bi dellu xelam daal parce que li dalal xelam

mu ni yàlla na leen garanti ñoom ñeent ba mu ànd ñoom fii ànd ak ëllëg mais gis nga lii mi ci yàlla li muy doxle mooy naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan loolu rek yàlla indil ko image yonent yàlla ibrahim ci biir ñaan laata muy jeexal mu indil ko image yu yàlla Moussa indil ko image yu yàlla Aïssa indil ko image yu yàlla Noor indil ko image yonent yi nga xam ni yëpp jotoon na leen yoon ci biir ñaan bi waxul dara yonent bi waaye yonent bi xam na lu ko yàlla wax ndax dégg na kàddu boobu yàlla nga koy bëgg wax ndax jël nga engagement nit ñi nga bëgg àndal ndax ëllëg ñi ngay taxawal de ëllëg ñi ngay taxawal te bu dee Moussa xeetam ñu guddoon fan la te am na ci jaamukatu yàlla yu mag bu dee Ibrahim sama soppe la bu dee yeneen ci yàlla nu dund na 950 ans bu dee Isa ibnu Maryam am na ñaari mission defe ñu ne ko fi ñëwaat aaxiru zaman kon ñii daañu am naw de boobu lu yàlla bëggoon gaar yonent bi mooy ndax wóorul nga say àndandoo ndax wóorul nga say àndandoo ndax fii neex na gisoo ñooñu mais fële dañuy toog ñee toog ndax bëgg nga nag toog ni yonent yooyu wër yonent bi daal di muuñ ci muñam bu rafet bi ni ko Ababacar ci dundam ba dundam di jeex du ma gàcce Umar ci dundam ba dundam di jeex du ma gàcce Ousmane ci dundam ba dundam di jeex du ci dundam ba dundam di jeex gàcce yàlla ni ko kon baax waaye seetal réaction boobu lu mu ci islam pour wax la islam pour décoder ko faw nga sóobu ci monde baatin te pourtant loolu yonent bi wax yàlla ci ñaan bokk na ci li tax Seydina Ousmane bañ a dugg ci ay problème ba ñu assassiné bokk na ci li tax Alioune ba ñu dugg ci ay problème ba ñu assassiné ñi assassiné Ousmane ñi assassiné Alioune kenn ku ci nekk tuddee sa bopp jullit kenn ku ci nekk ni partisan diw nga te ñoom ñu mënoon jug exterminer leen waaye ñu xam ni buñ buñ ca jógee jokkalanteeg jullit yi kàddu yu ñaaw jullit yële déggee ka la ñu xalaat mbaa loolu du rusloo yonent bi ci xamul ñu sacrifier seen bakkan mooy nit ki ni naa bàyyi lu ray ma te fekk na du ma fi wax wax ju ñaaw laata ma fiy jóge ndax bu ma ci duggee génn rek di xuloo wax ju ñaaw dana te wax ju ñaaw ji bu jógee jullit ya tax bu doon ay yëfër waaw mais ay ñu tuddee seen bopp jullit ñoo leen as Ousmane ni kon bu ma jugee wax ñii wax ay jullit seen mbokki jullit dégg ko la bu ma jugee ma nit wax ñi wax ay jullit seen mbokki jullit yële dégg ko la ñu ni ñu sacrifié suñu bopp moo tax informé nañ ko ci assassinat am avant mu koy assassiné moom Seydina Ousmane te ñëpp nee nañu dañ ko bett waaw téere yi dañ ko bett ndax dañu dajji néeg ba ca kaw ca péeru daal di koy rey mi ngi gàddu woon kaamil alxuraan te informé nañ ko mais lu tax jubul woon di préserver boppam di xulóot di wuti ay wol di wuti ko de c'est parce que moom d'accordoon na ci destin wu ba Seydina Alioune d'accord ci destin wu ba ndax Seydina Alioune toog nag yonent bi yonent bi ni ko kay ma nettali la xare bu dàq ci xare yi nga xam ne bu ma toogee ba léegi su ci sama xel demee rek mu dee Seydina Ali ni ko ban la yonent bi ni ko Badar neex na ma lool Ali ni ko Uhud yonent bi xalaat ni Uhud benn yoon waxal ni Uhud ñaari yoon wiccax bopp Ali noppi waaw ndax xam na ni lu tax yonent bi wax Uhud yëngal boppam xalaatutul xare ba Seydina Hamza ma ca ñàkk bakkanam lay xalaat Xalil noppi keneen ci bi toog ba yàgg ni ko waaye bàyyi li ma wax la ko gën a texeet yi ci xeetu sabuut Xalil ni ko kan la mu ni ko mooy ki rayoon gëleemu yenent yàlla saaliya mag ma jugoon rek jam gëléem gi gëléem gi du fi naane ndax tey dëkk bi dafa am feet rek mu jam mu dee ni parce que gëléem gi problème bi buñ ko écarté écarté problème te xamuñu bañ ko écarté lañu lañu empiré problème wax naa ko benn mbokk ma ni ko léeg nga gis benn piquet tee mbaar mi mbaar mu tiim réew benn piquet tee ko ñi waroon protéger piquet ba yépp yabal seen ndaw ni noonu gor piquet waaw te bu mbaar ma daanu ñépp yam ci ki rey gëléem nga yenent yàlla saalix ñaanoon ca xeetu samul loolu ci yonent bi wax aj ni ko kooku moo gën a texe ali ni ko yow sa xeet nag ku ci gën a texe yonent bi ni ko mooy ku lay assassiné yow kon wax na ko ali ni ko ki lay assassiné fekk yaa ngi jëm ci sa yoonu julli fajar mu la jaasi jaasi bi bi topp la ñaari fan nga soogay génn àdduna kooku moo gën a texee ci sama kon waxoon na ko des waaye ñoom teewul changé wuñu ndax lu tax changé ñu mooy dañu amoon objectif te gis nga yonent bi li ko yàlla dénk yëpp ci côté ñu ñu mën ko seede la mu ko dénk ci côté baatin moo ko ëppati ndax bi muy ñëw yàlla jël na bépp leer boo xam ne leeru mu'jiza bu yonent war def jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko bu la neexee suuf mab bu léegi nit ñi bu la neexee doj yi dalante tañ ci say noon bu la neexee asamaan ak suuf yëpp dajaloo léegi tañ ci diggante bi te pouvoir bu ci nekk lu ñu ci muy mystique bu la kenn mënul la nettali bi xëy benn bés rek waxtaan ak sayyidatuna mission bi feeñ na commencé nañ ko moom it dëkkal fa mu dëkkul yonent bi xëy suba rek waxtaan ko laaj Sayyidatuna Xadija ni ko ndax mës nga gis ku jël suuf changé ko def ko wurus wala mu jël doj soppi ko def ko def ci bakkan muy dund wala mu jël bant changé ko def ko weñ xadisa yi ko gis naa ko ba tey ndax njabarkat yaa ngi nii wër kaaw te dëgg mu ni ko léegi boo demee mu indil la xéram lu leen neex mu changé ko yonent bi ko baax na dal tëdd dallu waaye sayyidatuna Xadija jigéen bu tey am solo la ci jigéen bokk na ci jukko boo xam ne jukko faar la ci moom mooy jigéen ju tey ndax bu doon beneen jigéen fa nga toog la lay laajee lu nekk waaw ah, bala ngay jóg lu tax nga laaj nuyu lu tax nga posé ma ko mu dellu wax wax Sayyidatuna Xadija laaju ko dara te xam na ni yonent bi du wax ci bakkanam bu ko woowee posé ko question bu rëy bi ñu toll ndax mës na ko gis ba mu wax ñu ngi wër kaaba bi te gis naa ko ba tàyyi sumb kon am na lu yonent bi doon nigéte waaye laaj bu mu togg ak yonent bi defaral ka añ ba noppi yonent bi di añ sayyidatuna Xadija ni ko salaam yonent bi ne ko sa noppi bi keroog ba tey loo ci jot mu ni ko dama yëg ni ku nekk ci problème di sa borom kër kenn du ko dolli problème te xam naa ni yow doo wax sa bakk boo waxee rek c'est parce que am na lu sa conscience xaal wala loo xam ni bëggoon nga ko def wala bëggoon nga ko wax mais doo laaj nii rek parce que dafa neex nii ndax léegi dootoo muhammad ma ñu xamoon léegi muhammadu rasulullahi yonent bi ni ko dëgg la mu ni ko dama doon xalaat pouvoir pouvoir bi ma yàlla dénk yépp moo ji leer yi mu entouré ma doon xool ndax su ma ci defaree démonstration waa màkk daan ma nangu waaye ci biir ma fàttaliku ni lii ma xalaat yenent yàlla Muusa te li sama nawle xalaatoon na te keroog la ko ca dal moom Muusa laay bañ mu dal mu ni ko ndax Muusa dafa def démonstration dafa ni dañ koy nangul nekkam yonent au contraire ñu gën ko diaboliser firaw na woote ni leen mooy seen metre ci wàllu luxus waaye nëgal ba gannaaw suba danaa wut maître yi gën a mag ci luxus yu ñëw jom na waaw kon lu dellu si ci luxus kat bi nekk nag ma doon xalaat defal leen démonstration nga xamal ma ne ay luxuskat a ngi ma ne kon su ma ko defee li daloon Moussa moo a ci dal dañ naan luxuskat bu bees la waaye luxuskat yaa ngi wër kàddu gi ñoom it daan ñëw nu organiser soirée ku mën sa morom rek nga def ne Moussa moo tax ma laajoon te di leer ndax man sama dund yëpp méditation moo tax xaw ma ñoom luñ daan liggéey ci ginnaaw kàddu Xadija ni ko nag ñu ngi foofu yonent bi ni ko sa noppi bi mu ni ko noppi bi mooy ko ma lay ko problème yonent bi nag ñu ko am na lu ma naw ci sujjóot te bokk na la ca naw mooy dal dal bopp du woon sax lu naturel nii ci rek du woon lu naturel nii ci cër la bu yàlla defoon ci ndax yàlla dafa tànn ruuxu saydatuna Xadija tànn ruuxu saydatuna Mariam tànn ruuxu saydatuna Aïcha tànn ruuxu sayyidatuna Fatima tànn ruuxu sayyidatuna Asiya dajale ko ci benn milieu ci ray ba pour ñu def expérience mystique ki ci mën a ànd ak yonent ak ki ci mënul ànd ak yonent mu natt leen ruux yëpp ni mën na mu ànd ak yonent ba mu des benn muy roxum Sayyidatuna Asiya mu ni moom moo doon ànd ak yonent kuy wedd yonent la mën a àndal ruux yëpp jaaxle ruux Sayyidatuna Xadija ci ñu jaaxle la bokk ruux Sayyidatuna Mariam ci ñu jaaxle la bokk bu Fatima ci ñu jaaxle la bokk bu Aïcha ci ñu jaaxle la bokk ndax li ruuxu sayyidatuna Asiya wax ni moom mënul ànd ak yonent waaye ku weddi yonent la mën a ànd te ñu ci expérience mystique te lay mu jaaxal leen ñu jóge fa ñëw nekk ci monde shahada sayyidatuna Aïcha ànd ak yonent bi nekk soxna sayyidatuna Fatima nekk doomu yonent kon ànd naag yonent sayyidatuna Xadija nekk soxna yonent sayyidatuna Maryam nekk yaayu yonent yonent bi xëy bés fàttali histoire bi sayyidatuna Xadija ndax Xadija dafa ñëw toggal yonent bi reer ba noppi defaral ko bu neex mu jënd ba mu baax mu jox yonent bi reer ba pare mu jox ko ndox mu naan bi yonent bi naanee mu tooñ ko ni ko xanaa au moins sax nga fàttaliku bis bi tey lan la yonent bi ku sage la mësul bëgg nga ni ko fàttalikul bis bi tey mu ne la xaw ma bis bi laal la mu ni mu ni ko may ma tuuti daal di déglu déglu déglu ba yàgg ni ko te nga ma dimbali ci sa bis bi rek Sayyidatuna Xadija ni ko xalaat rek yonent bi xalaat xalaat ba yàgg li ko wax dëgg yàlla de wax yu wàccul ni wax ma bis bi laal kon xam naa ni bis bi sa borom bàyyi na ak yow Sayyidatuna Xadija ni ko kon man naa la ëpp nga fii ci ni jigéen di fooye ndekete waa xay bu ñu déggee loolu rek daal di yëngatu du ko fooye ak yonent kenn du ko fooye ak xub ñaari terme yooyu xay bu lañ koy ku ni yonent maa la ëpp wax ñu réagir ku ni xut maa la ëpp wilaaya ñu réagir réagir yonent bi yëg nit ña ngay yëngu waaye mu ne matt ni ko xam nga lu tax ma wax ni maa la ëpp mooy jour bi tey au moins nga fàttaliku ni mooy suñu anniversaire mariage yonent bi ni ko fàtte woon naa ko sax day waaye xay bu ñëw ni ko li Xadija wax mënuñu ko accepté kon wax ko wax ko lu mu lu mu foog ni xamuloo ko léegi nag yonent bi ni ko wax kon baax na dinaa la jox sa kaddu waaye balaa ma lay jox sa kaddu yi danaa la nettali benn histoire mujj mu ni ko histoire bi mooy kaddu ni ko yaa ngi yëg ci sa fort intérieur ni dëkkoon nga ay ruux te boobu gane ko àdduna Xadija ni ko man dama defoon gént ndax bis dama mel ni ku xel ma ci nekkoon ci benn buul mu am samay moroomu naw li jigéen mais kenn bokku ci sa morom kanam na mel moo tax xaw ma ku ci ne ban xeet la bokk mais daal bu ma juumul dafa mel na amoon na ñeent wala juróom bi ñuy waxtaan ci buul bi ñun ñëpp d'accord ba mu des benn ruux kooku daal d'accord xaw ma lu tax mais daal d'accord loolu ba dafa xàjj taxaw fa yonent bi ni ko du dégg nga Sayyidatuna Mariam mu ne ko yaa ngi mu ne ko kenn ki moom la yonent bi ni ko du di nga dégg ko ñoo wax Abu Bakar mu ni waaw mu ni kenn ki doomam la xool ma boobu teggee bëgg ko woon wax boobu koo xam ni sa wujj lay doon après boo génnee àdduna bëgg ko mu utiliser ak mu ko li ko dégg nga Seydina Abubakar mu ni waaw mu ni doom la ci moom boobu Xadija xamul sax ndax ay sa judd la wala judduwul wala kan la xam nga ni rek kenn ki ci doomu Seydina ne mu kenn ki Fatima la waaw Fatima la di sa doom boobu mu ni ko moom nga nekk doon foofu ak yéen la mu ni ko waaye lu ma jaaxal nun déggoo woon nañu mais dafa am koo xam dafa isolé mu ni ko mosoon na nga dégg soxna Firaw mu ni ah mu ni ko ow la Asiya la mu ni ko waaye ngeen defe ni ñàkk déggoo boobu mu ñàkk déggoo woon ak yéen dafa doon tuutil bopp dafa doon réyal bopp Xadija ni lan la nettali ma mu ni ko dafa doon xaar ba Firaw na contredire Moussa mu taxaw moom contredire Firaw na sëñ aw na rey pour mu am garaaju ànd ak ànd ak yonent ànd ak yonent ba noppi défendre waaw te xam ne bu demee ci côté yonent du mën a am ñaari garaaj yooyu kon foog mu dem ci côté ku contre yonent pour mën a ànd ak yonent défendre yonent waaw li ko seetal yéen ñëpp ñu defoon déggoowu leen te pourtant ànd na yonent ndax nangul la Moussa mais il fallait mu féete ci côté Firawn pour défendre Moussa la mu ci jële mooy assassinat woon tey garaate mu rëy ba toll fu kenn toll ni ko dëgg la waaye la nga nangul assi nangul na ndax man ànd ak naa yonent défendre naa yonent ndax lu nekk dégg mu nekk dëgg la ndeysaan mu nekk dëgg la ñu wax ndeysaan mu mu defal ko que ci anniversaire mariage waaw moo tax lii nit ñi defe di tubaab yi ñoo ñu ko inculqué ñoom ñoo xamul li xew rek ndax léeg nga gis ku jënd cadeau bu rafet di yóbbul soxnaam naan suñu anniversaire mariage naan lu muy nuroog tubaab yi ñu ne xool ñu topp loolu tubaab yi wax anniversaire mariage te xamuñu yonent bi waxtaan naka ak Sayyidatuna Xadija te kooku anniversaire mariage bu ñu feete beneen bu ñu feetee li ci ginnaaw boobu lay topp ndax boobu mooy bu ñu enregistré ci xëy ba mais fekk na yonent bi bëggoon jàngale harmonie fekk na yonent bi bëggoon jàngale harmonie bëggoon jàngale équilibre mais bëggoon jàngale nekkin bu rafet ci biir ñaar ñuy denc mu jiital waxtaan nga gis mu indi ci tooñante waaye nga gis fu tooñante yeeg waxtaan yu mujj yëpp mooy ci solution bi nga xam ni pour monde musulman bi yëpp la gis ni jàngale ko ba tey ku koy roy ci jukko bi da ngay ni loolu mu jàng ni mënatoo jàngale lu ko ba tax bi ko saxaaba yi déggee ni waxtaan nag loolu sayyidatuna Xadija te seen jour anniversaire de mariage ku ci nekk dem ci sa soxla wax ka nag ndax fàttewoo date bi ñu dencante nga di léeg-léeg ngi doon ko bind su jotatee ñu fete ñu di ko def bu jotatee ñu waxtaan seen problème yëpp lan cay réglé ñu réglé ko seen problème yëpp lan cay réglé ñu réglé waxuma bu jotee rek nu teg seen benn euh, mbir rek mel ni ku nekk ci soirée bu jotee ñu waxtaan waxtaanee lépp lu ñu passé woon te mu doon malentendu ñu teg ko ci table ji ku góor ki jéggal ku jigéen ki jéggal ñu àndaat jëma ci diwoon pour anniversaire mariage bi jotee ñu waxtaanee waat lépp lu jëm ci seen malentendu doon ci ko suñu ko defee dootuñu xuloo te yonent bi joxe na exemple bi ndax yonent bi éducateur la lépp la jàngal seetal boobu organisation waaye comme nit ñi ancré tuñu ci texte islamique dañuy dem ba lu ci bari dañ koy donn ci tubaab bi léegi nag bu ñu ko donnee ci tubaab bi te tubaab bi moom amul lu dul bouquet de fleur ba moom maye te bu fleur ba amee de temps trois heures de temps daal di dee nu sànni balaa nuy passé même anniversaire bi sax fekk na fleur ba dee nu sànni léegi ci xuloo ba lañ koy sànni waaw su boobaa day dem bu ku ko gàddu noonu da ngay topp ndër tool fekk nag gàddu bi du faral ndax xol bi gàddu ko moo gën loxo yi te xol bi gàddu ko waaw te ñi ci ëpp nag ci ñi leen di roy loxo bee kay gàddu xol bi du ko gàddu waaw léeg-léeg nga gis ku ñëw ni daf koy fekk te fekk na balaa muy commencé di ko fekk <laughs> am koy na message kay li ko tey xam ni dañu ma tënk a nga du ma génn yonent bi jàngal nañu te manque de sincérité tax na tey couple yëpp am nañu problème manque de sincérité tax na tey couple Esse lislaam may kenn la lislaam may nga mën a jël sa sa denc denc ko denc caabi ci mooy ki nga xam ni nit ñi dañu koy dénk seen alal wala ñu koy wax seen secret kilifa bu nit ñi di dénk seen alal que ni dem Médine wala Seydina Ali ni ko gàddaay bi jaaxaluma li ma jaaxal rek mooy xaalis si jàmbur yi ma denc seetal loolu man mësuma gis ku mel noonu ci sagesse yonent bi kenn woo Seydina Ali ni ko gàddaay bi jaaxal ma xam nga lu ma jaaxal mu ni ko wax mu ni ko mooy alal bi ñu ma dénk te seen borom nekk fii garde ko ku ñëw nga delloo ko wàllam ba ba muy mat Seydina Ali garde ko ku ñëw mu delloo ko wàllam te kooku bu doon keneen dafa naan alal ci sax lay utiliser maa ngi génn dëkk bi kon alal bi lay utiliser sànk ko def lu neex waaye fekk na yonent bi sagesse ëpp na loolu moo tax bis bi monde bi demee ba jëntuñu yonent bi comme royukaay bépp danger bu mës a gete monde shahada keroog la danger bi commencé ka gete ndax yonent bi rekk amul solution xoolal tey fi àdduna toll xoolal fi àdduna toll ku nekk ngi cherche pouvoir ñi ngi ci liggéey activement activement soo demee ci chiite yi ñi ngi ci liggéey soo demee ci sunnite yi ñi ngi ci liggéey kuréel bu dajee ñu ngi liggéey activement pour dominer adduna loolu nun kenn xamul lan te nun bin ci mujj gis dafa mel na ni ci chiite yi di liggéey ci nit yi liggéeyuñ ci noonu xam naa nag ñoom seen mouvement chiite bi dafa am idéologie bu ñu am bi mooy imam Mahdi mooy seen douzième calife te dañu koy xaar dañ koy xaar bañ ko commencé xaar yàgg dañuy dem même ba tribune au ni ñu annoncé ko ndax Ahmadinejad defoon na ko kon ñoom ci xaar bu metti lañu nekkoon léegi dafa am benn idée bu bees bu seen gardien yi nga xam ni ñoo yor lépp luy sécurité dëkk bi rawatina Iran commencé di am te idéologie bi mooy dootuñu xaar mais dañuy imposé balaa mu doy waar dañu ni dootuñu xaar mais dañuy imposé ndax dem nañ ba commencé nañu mettre en cause seen texte yi ndax ki ñuy xaar est-ce dana génn sax te mooy seen douzième calife ñu ne ce que dana génn est-ce que lu ñu waxoon ci texte yi sax loolu ba léegi ma nga existe ndax bis bu nekk nu déglu sunit yi nu yàq si suñu xel ne nu du kooku yonent bi neen nii neen nag ñëw yore wàllu soufisme yi ñoom it jógati ni du kooku parce que Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane neen naa neen ñu léegi daal te comme sonn nañu ci ay embargo sonn nañu ci ay sanction noonu imposé suñu imam muy la ñuy préparé depuis des années et des années waaye xam nga lu ci yéeme mooy dañu ne ñoom bu ñuy imposé seen mahdi julli ba mu leen war a njëkk jiite julli timis la war a doon te sa mas ji la xaram na leen war a jiite ci problème baa ngi noonu régime chimique ak Chine ñu waxtaan seen biir ñoom chiit parce que lii ma di leen nettali la ray bu ñoo nu ko tegal nu ni ko seetaan yóbbu nu même ci lieu bi nu xool espace mu ngi sol benn xaftaanu baxa bu bënn wékk ko benn sàkko dóor mu ni ko yow yëg nga li chiite yi décidé fii ci masjidil haram mu ni ko ñoom kay nga nee di julli ma ne ko est xam nga lu ñu samp mu ni ma déedéet ma ne ko neen ñu seen maax di la ni samp mais li ci intéressant mooy li ma leen nette bi ñu ci waxtaanee ñëw seen biir ñu ni loolu du mën a passé inaperçu te wóor nañu ni régime suni ci duñ kanam xalaatul ko sax ndax ñoom dañu am tension ñëpp xam nañu ñu ni kon loolu buy am day ànd ak doole mooy bu ñuy imposé imam Mahdi nañu imposé waale suñu doole waaw léegi nan la def nu ni nan def coalition benn réew ma di Iran jël ña mu am Hezbollah Liban jël ña mu am ñu ni nañ leen yóbbu ca terrain d'entraînement ba en Syrie ñu nekk fa comme ça dinañu am expérience ci terrain dinañu am expérience seen diggante ak yi ndax bu ñu fa duggee occidentaux yi song yi moom la ñuy liggéey moo tax guerre civile ñëpp defe ni dañu dem pour soutenir le régime syrien alors que dañu dem pour am expérience de terrain te tey loolu ñuy wax chaîne de télévision yëpp wane ni soo demee tey Hezbollah libanais ak ñenn ci ay renseignement soldats yi nga xam ne ay iranien lañu ak seen ay convergence yi nga xam ne ci biir la ñoo def coalition benn puissance moo leen di soutenir muy Moscou te Russie mi leen di soutenir te xamul seen objectif seen objectif du Syrie du protéger Assad seen objectif mooy am expérience seen diggante occidentaux yi ba mën a imposer seen mar bi ca masjidil haram te loolu catastrophe la loolu catastrophe la mais ñëpp xamuñu luy lekk ci biir guerre Syrie bi loolu catastrophe la ndax ñoom dañu yëg bu ñu fi toogee di xoole di xoole di xoole léegi ñu jógee si ak ñoom xay ñëw te ñoom seen bos prédire na leen ko ëllëg te boobaa idéologie boobu yëpp dana daan te dañoo fonk idéologie boobu nag ma wax lu fi ni nga fonkee alxuraan nii ñoom noonu la ñu fonkee idéologie bi boo dee tijaan ni nga fonkee sa tariqa ñoom noonu la fonkee li ngay wax te ñoom li ñu cay wax ak la ca sinit yi wax comme yàlla ak yàlla bokk ñuy liggéey xamul ñoom di nelaw rek naan waaw bu nga soutenir kay pourquoi nangam nangam débat yi interposé di wax fekk ku ca nekk lu muy def xam na le pourquoi xam na le pourquoi te gis nañ ni loolu mooy solution bi te loolu ku ko mën a xeex nekkuñu seen terrain ñu ngi si terrain jàmbur mais lépp day bokk ci prédiction yonent bi sallallahu alayhi wa parce que yonent bi waxoon na ni wàccu Insa ibnu Maryam mi ngi feeñ ci destruction Damas béréb ba nga xam ni mooy mucc ci destruction bi muy minaret blanc bi fa la Isa ibnu Maryam di di jaare bu kon boobu mooy li ko entouré yépp daal ko détruire te defe contestation boo xam ni depuis 2011 la woon jusqu'à nos jours bis bu nekk ñaati bombardement ci dëkk te malheureusement ñu ngi wax reconstruction reconstruction mais reconstruction bi balaa am Isa ibnu Mariam wàcc ndax kenn mënatul reconstruire lépp te pourtant puissance yi ñu ngi décider bis bu ne ngeen dégg Amérique bis bu ne ngeen dégg ñeneen ñu décidé ni nañu voté benn budget pour reconstruire Damas reconstruire Syrie ci boppam kon ñu ngi si ngi ñu ngi ci seen levée mais période bi ñu nekk seen levée de fonds ba dajale fonds bi ba ni léegi war nañu commencé travaux yi ca la ñuy dégg ni imam Mahdi feeñ na mbaag léegi ñu téléphoné leen ni leen nag reconstruction bi dootul priorité nekk fa di xeex dootul priorité char bu ngeen amoon retourné leen ko mu jëm si fii jëlee lu fi imam Mahdi mii waaw ñëw bay dox bay waaj dugg màgg suuf si wan leen ñoom ñëpp waa Iran yëpp ko wàll si ni lii moo doon signe bi yonent bi waxoon feeñ ñu wàññi si adduna bi tourné nekk beneen régime beneen organisation ndax ñëpp jaaxal na leen lu tax yonent bi wax soldat yi bëgg songu imamaat bi Damas bi ñuy jëm ñu bari jaaxal na leen ak fii situation bi actuelle toll lu tax waxul ñu ngay jógee ca Amérique lu tax ñuy jógee Damas c'est parce que seen force yëpp a nga fa station mooy seen force bi ñu tuddee OTAN nga xam ne ñoom ñu ko jëfa waaw te tey seen relation seen allié yi may na leen koo ci laal rek allié ba dootul def daal ñoom ñoo ñoom ñoo lay song waaw li leen di retardé retardé retardé mooy Russie moo leen di retardé bu bu ci bokkoon ba tey kenn waxatu mais xam na ni comme moom Chine dañu am doole te tey ñu ni fii la ñu féete suba la ñu fee la ñu kon dañuy def attention ci seen manœuvre dañuy def attention ci seen manœuvre su ko defee day toll foo xam ne àdduna da gis ni lépp jaayante doole waaw gis nga ñoom lu ñu lu ñu lu ñu armé ci seen bombardier furtif yi nga gis Russie moom it yàggul bi mu fi def opération boobu mu tuddee Vosko ci 2018 gis nga la mu génne ci ay char ba pare di di def ay manœuvre à la porte de l'Europe pour montrer sa puissance Chine di wane moom aussi puissance nucléaire jaaree ko ci sous nga xam ni kooku mooy koo si laal ci ñun rek moom àdduna tàkk wata dégg naa ci ndeysaan benn journaliste mu invité ci plateau de télévision bi Vladimir Poutine président russe bi mu laaj ndax troisième guerre mondiale bi mu ne ko xaw ma ndax dana am waaye xam naa quatrième guerre mondiale ba ay bant la xeex ay yat la ñuy que daf ko bëgg wax fu puissance léegi bu amee mooy si fini détruire na la te xamuñu yàlla yàlla ni mu bëggee àdduna loolu la àdduna di dox yàlla kenn du ko contrôler la force yi nag dinañ dem ba toll koo xam ni àdduna lépp dañuy jàpp ni ñoo koy contrôler mais fekk na yàlla moom kenn du ko contrôler l'àdduna ndax stratégie bu ni teg ko war a contrôler ëllëg te sax li ñu bari yaakaar muy contrôle imam Mahdi ci àdduna dafa tegu ci violence mais ndax nañu seen bopp teguwul ci violence ci pouvoir mystique la tegu ki pouvoir mystique la tamit sa benn mbokk laaj na ma ni imam Mahdi na mu mënee ki nii gaay yi mel seen kii yi ma ni wax ma ni ko da nga benn baat mu ni ma wax ma ni ko boo xëyoon suba fii ci réew mi rek laa wax yëkkati sa loxo ni benn oto du daw ci tëli bi sans sama ndigal ruu yëpp kale aéroport benn avion mënul jóg benn vélo mënul dem benn machine mënul tàkk bu la nga daañu ñëw lu nekk daañu la ko jox pour nga développé loolu te Imam Mahdi yàlla may na ko mu mën ci loxoom wax loolu ci àdduna lépp lenn mooy pouvoir mystique mooy pouvoir bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani la mu ca wax moom kenn wax ko ci parce que moo ni bu ñëwee ngeen di destruction nangam nangam jeex na man sama tarixa jeexul au contraire sama tarixa dafay commencer di flamme mi jëm ca waaw di gën leer ba ngeen xam ni man Cheikh dëgg la mu ni ba ngeen xam ni man Cheikh dëgg laa wate waaw kon loolu réalité waaye contexte bi àdduna bi toll ñu bari def leen di jaax ndax naka la un homme di ñëwee di gouverner te bu leen jaaxalee c'est parce que jànguñu histoire yeneen ci yàlla Suleymaan waaw su leen jaaxalee c'est parce que xamuñu Zul Qarnayn waaw parce que kenn ku nekk ci ñoom amoon na pouvoir bu ñu toll ku ci nekk ci ñoom amoon na pouvoir bu ñu toll yeneen ci yàlla Suleymaan amoon na ko Zul Qarnayn amoon na ko te yàlla lu mu bëgg protéger yu protéger ko moo tax xëyu bàyyi imaam Mahdi bi gane àdduna rek. mu mu mu woo ñëpp ni leen ni yéen ndax ci jamono jooju mënoon nañ ko fàggatu nombre de disciples yi mu koy jox nit ci gën tuuti te ñooñu ay renseignement wu yu efficace ay renseignement wu yu efficace te même ñi amee seen appareil yooyu di ay détecteur de mouvement du leen détecté fu leen neex la ñuy jaar fu leen neex la ñuy jaar naa ci gis kenn ci renseignement am yooyu koo xam ne dem na ba tiim site bi nga xam ni fa la ñu stocké B52 aux États-Unis fa lañ ko stocké keroog mu ñëw wax wax wax ma ci loo xam ne xamoon naa ko aw mu ni nekk ci pentagone lépp souterrain la ngay séen du moo tax bi ñu waxee affaire avion yi mbëkk nañu fii daal dafa ree waaw duñu def mukk lu efficace ci kaw si suuf lañ koy dee ñun Sénégal nag comme amul doole ñun lu fragile lu efficace ñun si kaw rek su ko defee benn doj bu waddee toj ko sax ñàkk ni te yéen ay milliards milliards waaye fekk na yonent bi moom comme yàlla daf ko wan wan ko ëllëg mu prévoir te tey mooy problème mu képp kuy gëstu waaw képp kuy gëstu mooy sa problème moo tax fu nit ñu dégg maax bi rek xoolal yàlla wut ñu ko woote ñu bare pour brouiller piste yi dem na ba ku ko woote kenn dootu sax yëngu ko xanaa loolu Sénégal ku ko woote ñu yóbbu la xaar yi yóbbu la paquet suukar yóbbu la wóor waaye dem na ba tubaab yi pour te maa les mêmes maladies qui l'ont précédé loolu la ñuy wax ñoom bu ñu déggee maladie ah ce sont les mêmes maladies qui l'ont précédé waaw ngeen di ñaar ñu naan y en a des milliers des milliers ci listu ci listu Sénégal des milliers des milliers d'imam malades waaw naan ñu ñoo xam na waar jaru ko nag ndax loolu du leen yéen pour wax la ni volonté daal ndekete ñëpp a taxaw waaw ndax dinañ dem ba engagé ay mystique ñu leen di gëstu engagé ay nitu alxuraan ñu leen ay nit am xam-xam ci livre yëpp diggante Zabur diggante Injiil diggante Tawraat diggante alxuraan pour mu di leen décoder message waaw moo tax léegi nga gis ci benn site buy wax ci imam Mahdi nit bind ca commentaire nga defe ni jullit la fekk ci renseignement américain la bokk day laajte pour mieux comprendre waaye yàlla nga laajte nga comprendre nga bañ laajte moo yem ci moom waaw moom la muy décider tant que ba jotul doo ko gis te boo ko weddee rek da gis na mu jëlee yeneen yàlla Moussa yàgg ci kër Firawna waaw te pourtant boobu ñëpp prédire nañu woon Firawna ni que dana la doon ka lay doon ngi fa kon kon kon bu gisee Moussa ci këram sax war na jaaxle ku mu mën a rey mu rey ku mu mën a rey mu rey nu indi ko ci biir kër yàlla di wane pouvoir parce que pouvoir mystique. ndoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci yonent yi ñoo dem tànk ci ñëw dox seen mission wane la wane lu tuddee ko mujjiza wëli dem tànk ci ñëw dox seen mission wane la wane lu tuddee ko wilaaya ñi ni ay karamba la def mais diggante ñiy def karamba ak yonent ya nga xam ne am nañu seen nubuwa di def mujjiza boo seetloo fa ñu puiser ci benn teen la ñu muy ci pouvoir mystique bu yonent bi te pouvoir mystique bu yonent bi axiru zaman moom la ñuy exposé moo tax imam Maalik pouvoir am di pouvoir mystique bu yonent bi moom la ñuy exposé boo déggee ñu ni base mystique bu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif looluy pouvoir mystique bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy seule place ci tariqa bi bu ñu lal malaan bu wert amul fenn te rokk bu mu nekk ñaari nit xëjuñu fa waaw bu ngeen fa bëggoon wasifa fu mu nekk kenn lay toog bu xëjalee keneen keneen ci benn tànk may teg waaw xanaa nga jàng jub sa borom toog jàng mais rokk ba mu nekk ñaari nit mënuñu fa toog te mooy seul place ci tariqa bu ñu lal malaan bu wert muy base mystique bu Cheikh Tijaan léeg-léeg mu flotti jëm kaw chaque 31 jours léeg-léeg ñaar te mooy base mystique bu Cheikh waaw mu samp ko fii ci Sénégal ba tax axtaan yi di fi dëgg mu samp ko fi te yooyu yëpp ci ci dëggal waxamu ko waaw yëpp ci sàmm kàddoom shahada sax ñu man ko seet mu fees ci rooxu taalibe ñu man ko dund moo tax mësul gëm taalibe bu ni du ressentir zikr cheikh mësul gëm loolu bu ci nekk rek dafa am réalité bu mu laaj xaal ba nga xam ni day yóbbu nit ki ci lu nekk mu mën ko gis am na ñoo xam ni lu leen yàlla dul wàllam lu ne la ñuy gis ndax fu ñu toll rek ñu ngi connecté ñu ngi connecté te dem nañu ba seen déconnexion dépendretul ci ñoom dem na ba seen déconnexion dépendretul ci ñoom. seen connexion dépendre tout ci ñoom te ñaar ñëpp lu ko indi mooy dénkaane nañu seen rox dénkaane nañu seen rox yaatu na yaatuwaay boo xam ngeen daal di sonn ba tax keroog maa ngi koy nettali mbokk yi yéen ñi di reeta mooy ni am na benn xeet ci mbindeefu yàlla yi dañu yàble ci man il y a de cela cinq jours ñu jël message bi décortique ko jàng leen waaye fu ci nekk rek yàlla yónni na fa yonent ndax réalité bi mu ci jublu mooy leer gi dafa war a tas ndax yàlla boobu yëgoon na ni ëllëg ku sauvé rek ci barkeel nga sauvé Jibril ak Albura ñoo doon protocole bi kon boobu voie d'ascension yi dafa amoon ay protocole waaw Jibril mooy joxe ordre fu ñuy dugg ak fu ñu dul dugg Alburaak mooy yóbbu yonent bi fa mu war a jëm ndax Jibril fu mu xool àgg na fa Alburaak fu Jibril xool moom it àgg na mujj di demandé ñoom ñaar ko ci gën a gaaw mu dem ba kenn mënul déchiffrer teggin bi yonent bi dem ndax ñi ko bëggoon déchiffrer daf leen jaaxal ñii dañu ne lal ba mu tëddoon ba mu dellu si fekk na lal baa ngay tàng ba léegi ñii dafa mel ni bu doon kaas ci ndox ma ngay sotteeku fekk na kaas nga jeexagul te dem na ko dellu ba ni boo ko bëggee décortiquer suñu bis tolloo heure yàlla ak suñu heure tolloo atu yàlla ak suñu at tolloo te loolu notion de temps boobu ñu jàng moo tax léegi nga dégg nit ñu werante ci dat mën xaw ñu lay xew bala ngay ci dat da bàyyi ba xam kiy wax ndax datu shahada lay wax wala datu raybu lay wax waaw ndax nuroowuñu raybu bis bu ne seen organisation changé wax naa ne que ni boo demee Hebru dañ lay bindal ni Isa ibnu Maryam su ñëwee ci monde shahada 40 jours la fi passé kooku boo gàttee xel boo ñëwee da nga naan ah Isa moom du fi yàgg ni ndekete ñeent fukki fan la fi am ndekete ñeent fukki mooy suñu juróom-ñeenti at waaw te dañ lay wax ni 40 jours la fi passé. loolu tax yóbbu bi yàlla yóbbu yonent bi bu jaaxal ñenn ñi wàcc Isaa ibnu Maryam mu jaaxal ñenn ñi ndax léeg-léeg tooñante ko fii ci Medina Cheikh ma wax mbokk yi ni leen yëg ngeen ni mën ngeen xëy rek bokk ak añ yonent bu demoon ba dellu si di Isaa ibnu Maryam te buy wàcc noonu la jaaxale nii ni ñu koy imaginer ba léegi feebu extraordinaire la ci ñoom ñoom sax xam naa dañu naan dana leen jaaxal daal nan la yonent buñ daan dégg ni doomu Mariam la xëy suba ngeen di gàmm ni mu toog nii si seen gàmmu sedd waaw ngeen di waxtaan ñu waxtaan ak yéen bu nga loolu dafay jaaxal nit ñi xalaat te xadis sax na ñëpp gëm ndax yonent bee ko ñëpp mën ñëpp yonent bi ko njëkk prédire ba ba nettali na moo wàcc yonent bi keroog nettali na ba nettali sax ñaq bay nekk sa jëf waaw te kooku wax naa leen ko ci la descente du prophète Isa ibn Maryam pression bi mu gisatee suuf ak li mu ci enduré yëpp mu fas yéene fi wàccaat te yëg ni suuf gën na yées na mu ko bàyyee yëg ni suuf gën na yàqu na mu bàyyi woon suuf ak la mu fi jot a andi yooyu xañ ko fi soxna xañ ko fi lépp fexe ko assassiné mu rëcc leen xañ ko fi soxna xañ ko fi lépp ñu ne ko dem na ba suuf yàqu waaye dellu si waatal ñu ne ko waaye dellu si waatal moo tax bu dellu see <laughs> julli yi dañ koy sopp jullit yi nañ koy sopp ku nekk bëgg ko offrir sa château ku nekk bëgg ko offrir sa état ku nekk bëgg ko offrir sa mu ni leen benn njaatige la am mu may héberger muy imaamul Mahdi ndax moom lim doon xàttal muy dajjal bu ko fi jëlee tund bu nekk lay dundaat loo tax yonent bi di wax ni jamono jooju bokk na ci jamono ju tàq ci dund waaw mu ni dina dem ba nit dem ci armeel di ziyaare xool néew bi ni ay soo dundoon ci suñu jamono yi di ko kontaan ndax lépp a yomb dellu wax ko ndax yàlla lii tax crise économique bi di am te crise économique bu amee crise financière am lépp am mooy yàlla bloqué na bloqué na ni nature bi doon meññ yàlla bloqué na indi na ci blocage total blocage total la ci yàlla indi benn plante la bàyyi ñu enregistré ko ca ray ko moo continuer di mel na muy mel ba dajal di génn muy soogay changé muy mango moom rek la bàyyi yi ci des yëpp boo ci ji di ci gis càpp goo xàmmewul la benn plante la ngay bëgg garanti nga xam ni fii ba balaa muy nekk di changer mooy dajjal commencé di di di jaxase mission imaam al mahdi muy mangu waaw le manguier noonu la koy tuddee garabu mangu waaw man moo tax fu mu nekk moom rek lay jilee waaw dinaa ko ñaan ji boo daggee fruit bi boo ko daan lekk li muy def ci sa yaram bu dee ci wàllu énergie la am ñaari kaamil maye naa benn bi waaw ñaari kaamil yi ma yore benn bi boo gisee mayewu garde beneen parce que beneen bi laa jàngi beneen bi moom laa jàngi woon ci xabru cheikh moo tax mënu ma ko maye mais fu ma mësee am ñaari kaamil maye naa day gàtt ak benn kaamil bu ndaw xam naa te da nga waroon yor téere yi pour ñu xam ni yow mii kat Bagdad bii kenn mënu la fi waaw ah. mu ni bu dee yor téere yi tax ñu xam ni kenn mënu ma de kon ñi ma mën dëgg ñu bare ndax dama dul yor benn téere ndax benn xam-xam dafa ma doyul bu dul bu alxuraan ginnaaw alxuraan sama kurus jeex na leneen lu waay bind mën naa wéral ci may may bu zamaan yi ñu di ci naan te boobu fekk na ñu ko devancé ñu bari bind nañu lu ne waaye dafa demoon ba bind bi nekkatul lu ñuy def ngir wut xam-xam mais dañ koy def pour baax te aada boobu moo dellu si waat moo dellu si waat ndax aada bi mooy sama kër daara la sama kër daara fane sama kër nangami kaani la nga nangami téere tafsir la waaw sama kër nangami ustaas la waaw benn góor nee nit daf ma ko wax sama kër nangami ustaas laa jël sama kër daaraa ngi ci ginnaaw sama kër taalibe fa la daj sama nee ma ne ko sa kër mbaa daa fay taal attaay ma wax nee ma ne ko waaw kay boobu rek ci farat nee na mu mel lu la parce que dañu dañu dañu xam ni borom xam-xam nga wala dina nattaale xam ngeen wax loolu dul jëfe lu ko jaar ma ne ko kon jamono yàqu na ndax fa la ñu toll fa la pour waxkat yee tax yàlla wax pour waxkat yi moo tax ñu ni sax jarul nga ni mooy yéen ñi gëm yàlla lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def jarul ko neen rek yéen ñi gëm yàlla limité leen seen wax ci wax seen farat jeex na ndax nettali na ko ni benn mbokk mu mag waxoon na ko ni Sénégal ñaar daan bokk nañ ci ñi nga xam ni fii mu toll tey ñoo fi ñu ni ki ci njëkk mooy ki nga xam ni dafay wax di wax di wax ba la mu xamoon jeex mu continue di wax waaw ak ki nga xam ni xamul dara ci la muy wax muy wax rek waaw yooyu mooy problème bi ndax léegi nga gis ni ci biti nga tuddal ka xay bu lu ne mu wax xay bu nii kenn xamu ko du yoon nangam nangam mais mën nga dem ba yow kenn xamu ko ngay werante kon yow doo si parce que loo weddi wut nga ko xam nga erreur bi laa ya'lamul ghayba illa Allah xul xul xul xul ba tàyyi ñu ne ah, yaa ngi mel ni ci ñi nga xam nga bokk kon kay maa noonu dara wóorul waaw erreur la erreur de communication ñu wax la ghayb nga xul jar bi bàyyi xel parce que farat yonent bi dafa daan wax ni làmmiñ boo gisee nu wutal ka ñaari barrière bii di bañ kaw ak bañu suuf mooy bañ mu fàddu borom waaw ndax bu dul loolu mën na fàddu borom te jamono ji nag la rawati moo tax ku yàlla dénkul façon boo mën a communiquer boo yóbboo xam na lay def ndax loo wax ma ngi ci internet moo tax balaa ngay wax looy tudd rek amal preuve rek ndax preuve dara gënu waaye bis boo tuddee loo amul preuve rek dugal nga sa bopp ku am preuve yàlla dimbale na waaye sénégalais moom mën na wax te soxla wut ndax preuve mooy la bëgg a dégg seet ndax mën nga garder secret wala mënoo garder secret ñu wax la loo xam ne du secret mais di xool ndax nit ñi daan téye fekk na loolu la ca waroon a topp mooy secret bu ko nit ñi yéegee rek ñu yam ak foofu yow waaw dootuñu ko dinañ yow parce que dañuy xam ni lu yonent bi jàngale ci denc secret nekkul ci yow te kilifa moo war a gën a mën a denc secret kilifa waaw man moo tax bu ma gisee kilifa bu toog di weer nit daf may jaaxal. kilifa dafa war a denc secret wala bu ko dencul mu def la alxaaji abdul aziz si dabaax daan wax ni loo bëgg wax ci biti kala ko wax nekk dinaa ko nettali waaw bu la nee déedéet jarul nett li nga kon moo que bu dee instant nga génn di nettali mais kenn dootul amati ci yow kenn dootul amati ci yow moo tax loolu lu lu jar di bàyyi xel te gis nga yonent lu ñu bari xamul mooy yonent bi dem na ba génn àdduna denc ay secret yoo xam ne ay mag magi màkk waxoon nañ ko bañ ko fitnaale bu génne woon secret yooyu ñu weddi mag ña ko doon jéem a indil problème mais lu mu ci ndax ku ñëw di ko dénk sa alal wax nga ko ni ko sa ni ni sa kër di dox boobu mission bi doon ku ñëw ñëw jël ëmm xaalisam di jox yonent bi expliqué ko sa kër A ba Z ni ko nag moo tax ma di la dénk nag waaw ndax wóoluma sama taaw bi wala wóoluma sama soxna si ndax keroog jël nañu fi sama nangam ak nangam ba ma dencoon sama nafa ba wax wax fekk waaw ma dencal ñu baax te bañ ko commencé fi nag bu neexoon mu woo taaw leen seen bàyyi fii la denc seen àll ndax nee na yéen a jëloon nangam ñu di waaw ku la ko nettali kon dëgg weddi seen mais yonent bi noppi. ngir préserver honneur doomu aadama ngir préserver seen dignité te façon comportement boobu mu amul ku nekk war na ko ci roy loolu tax Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijaani Chérif wax ni boo bëggee mucc ci yenn yi nee na doxal farata wax farata waaye nee sa farata lépp na nekk sa diggante yàlla parce que boo ci dugalee nit ñi rek yan pression boo mënatul yeendeeku loolu tax rey bu ñu organiser ñu fii rey bu ñu organiser ñu fii boo déggee xaarul xiraa daañu dem diwaanul xiraa nanga mais pour lan pour sélectionner pour sélectionner moo tax ñuy dem diwaanul xiraa rox ya fa war a dem ñu yóbbu leen dajale leen fa informer leen lañ leen di informer delloo si leen ñii ñu jox leen ndigalal wax ñii ñu jox leen ndigal ne ñu noppi loolu lu extraordinaire la moo tax mag mu ci nekk wax ni la mu xam dëgg bu ci amul autorisation bu ko waxee ñi muy toogalee njëkk jug dem seen yoon di te fekk xam ne ca lu dul jeex waaye ñu noppi noppi ndax xam yàlla ak ay pexe xam yàlla ak ay organisation waaye xam yàlla ak na ma séddale moo tax ñu bare ñu bare dem nañu ba barzak jaaxle te fekk na seen jaaxle ñoo ko yóbbee seen bopp ndax jéemuñu ko woon miin fii jéemuñu ko woon miin fii xamuñu woon règle yi nga xam ni mooy protocole Barça lu extraordinaire Barza ak shahada am na lu nu nuroo am na lu nuroo li nu nuroo daal mooy organisation béréb bu organisé lañ bu organisé waaye yu bari malheureusement dinañu dund ba dem fu di regretter ndax xam lu la xew ndax mës naa dégg benn mbokk nett li ma ni doon na waxtaan ak benn nit nee nit ka ni ka wasifa amul barza waaw mu ne te xamul ni bokk na ci condition lu tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñu jox ko martaba moo barza pour maxtuum ba tabaxal ko barsax comme palais pour ñu décentraliser fa wasifa àdduna bi yóbbu ko foofu bu demee ba àdduna bi jeex wala bu demee ba taalibe cheikh yi jógee fi dem fekk waaw waaye pexe dafa amul nag waaw mais mag ñi ñoom dañuy réagir mag ñi lu xew ci réew mi wax nañ ci waxuma mag ñi fii mag ña ca xëy balaa wax lu xew ci réew mi fi wax ñun ci dafa am na ñu leen di dégg ak ñu leen dul dégg waaw dinañu dem ba avertir nit ci nit ci nit ku nekk ci réew mi dañ ci avertir nit waaw ñoom nag seen avertissement ñoo ko xam mooy bu ñu waxee la war a wax ba pare jël nañu seen matukaay lu xew rek wax nañu loolu kenn xamul lan la lu jar di bàyyi xel ñun yàlla dimbali nañu ñu ñu am lu ne dañ koy gis période bi ma jugee fees laata ma fi def interview boobu sax ak waa wala duniyaat nuy wax coow coow Yérim mii moo gis alhaji abdul aziz Dabba mu ni ko benn malaan des ci bonne shahada joxoñ wante banaan mu ni ko du gis ko mu ni waa mu ni baax nii nii ni ko mooy maanaam Cheikh Tidiane pour wax la ni am na ci yoo xam ne ay débat inutile la fexeel ba seddu rek mooy farata tarika bi tànn la boo xam ne fexeel ba piise mais débat inutile la fii laa bokk bokk fii fee laa bokk débat inutile la parce que fexeel ba bokk ci Cheikh Tidiane Chérif fexeel ba di naan ndax nit bari na mu bokk te naanu fa daal bare na fu mu bokk te naanu fa daal te nee na fa la bokk te naanu fa daal ndax am na loo xam ni ku ko naan dina am teggin yoo xam ne te loolu faral te dëgg la moo tax ma ni lu xew rek mag ñi wax xëy si waaye nag xëy na ñëpp dañu leen dul dégg mais du ñu bàyyi dara mu jàll te fekk waxu yi ni ñu nekkee woon ci réew mu démb tey noonu lañ ci gën a nekkee lu ci xew xam nañu organisation ba xam nañ la. xam ni laajoon na ramju shahada laajoon na ramju shahada nu seede xam la nga xam ni moo moo dese mbokk ma ci fan seet nan lañ koy rallongé mais fii laa leen nettali dossier bi te pourtant dossier boobu Xalifa Umaru Sabali bi moo ko rek moo ko rek moo ko rek la ca am ca ramju shahada yëpp moo ko def yow nettali ma la ma ca bul def koo gis rek waaw waaye bul def koo gis mu sol garam boobu rek nga def ni moo gën waaw lu jar di bàyyi xel moo trompé vigilance su Sénégal yu bare waaw borom garam boobu ba léegi borom garam boobu mooy la mooy pour ko gomeel rek ah. parce que am na gom yoo xam ne bu ñu la ko passé def ma def boo toogee nii te kooku ñëpp mën nañu ko xaqul yaqin moo jaar noonu waaw borom xaqul yaqin ba neena ñu ni dafa yem ci neena bi ñu ni moom kay dafa ni nii miir bi génn écran bi wan may gis mooy borom xaqul yaqin loolu mooy dëgg loolu mooy xaqul yaqin te jamono toll na koo xam ni dund ci loolu rek ay farat li ci des yëpp lu farat ndax li desoon ci àdduna pour jaroon yenn clan yi jarul yenn partisan yi jeex na takk kon yàggatul li ci des rek mooy xàqul yàqin ku ko ame rek demal jàpp ci kaw lu leer nañ ni ku amee xàqul yàqin demal jàpp ci kaw bu la rëccee c'est fini maa la ko fii bu la rëccee ay gént lañ lay nettali yu dul jeex xaj yoo xam ni ka koy nettali sax mënu ko firi ndax gént nitu yàlla la yàlla may mu firi nitu yàlla la yàlla may mu mën a firi gént moo tax lu complexe dina am sax yu ñu rédigé ci téere yi waaye fekk na téere yi tam la mu mën a firi rek lay firi te gént la mu njëkk dépendre du gént de ca ca gént la njëkk dépendre kooku lu jar di bàyyi xel boo ci bàyyiwul xel rek juum dee boo créé nag coono lay nekk bu dee ni gént bukki ba rek ñëw ni gént yàpp lu muy fii ñu ne mu ni sàkku la de mu ni waaw yàpp bu bëri mu ni beneen sàkku bu tegoo ci kaw sàkku boobu mu ni ko yàpp bu bëri mu ni beneen sàkku teguwaat ci sàkku boobu ñu ni ko deen mu ni yàlla baax na ko ci ñaari sàkku laay ko gént ko organisé yàlla baax na ba ñaari saaf laa jot génn kooku boo organisé te gént ray bu ñoo koy organisé moo tax façon bi mu am ci interprété ko kenn xamul na mu toll nitu yàlla rek ko xam waaye gis nga it nitu yàlla dina dem ma toll foo xam ni dootul mën a firi gént ko ci marque di nga dem ba dootul mën a firi ndax da koy ragal firi ndax loo wax ni gént ga moom lay firi bu dul woon firi loolu loolu lay mujj firi xanaa ngir lu baax rek lay firi wala bu dee ñu bëgg xaalis rek ngeen leen xaalis lay firi day sànn ndax dina dem ba dina dem ba pexe amatul te mënatoo ci dara kon yooyu da gis ni yu jar di bàyyi moo tax bari na ku ñu trompe li ci gént moo ko ndax na mu ko interprété ak na mu nekk dafa bokkul nga interprété ko nu nekk lu lu jar di bàyyee xel gis nga Muhammad ibnu Sirin doon naa leen nettali histoire bi kenn yeneen ci yàlla Yusuf tëf di woon ci làmmiñ ca xadaratul ilaahi te tey bari lu téere bu nu bind ci interprété gént moo ëpp yu nu ci bind wala boog moom la nu ëpp lu ñuy utiliser téere benn mbokk dafa mës ñëw ci moom di lox yow fajar ju lox ñëw ni ko biig de li ma gént man loolu yàlla bu mu doon dëkk ndax man boo ma xamee xam ni man ci jaamu yàlla rek laa nekk guddi ak bëccëg damay jaamu yàlla te itam gis nga ni ma ragalee yàlla ni ma fonkee alxuraan Muhammad ibnu Sirin ni ko waaw waaye lan la mu ni ko dama la bëggoon rek wax sama bopp balaa ma lay nettali sama génn mu ni ko loo gént mu ni ko dama gént teg alxuraan nii ba pare tiim ko mel ni ku ciy tuur ndox ma tiit nag ni alku nag Muhammad ibnu Sirin ree mu ni ko yow jullit buy waaji alku médicare bokk na ci xam mu ni ko du alku di nga jur doom ju mokkal alxuraan loolu lay def seetal boobu interprétation extraordinaire mu ni ko du alku di jur doom bu mokkal alquran loolee mu dem te mu jina am doom ju nekk hafizul quran waaw te defoon na ne alku la gént interprétation bu parce que façon bu nekk dina ko taxawe nga ni réalité bii la te fekk beneen réalité moo tax mag ñi daan wax daal wëluyu yàlla daal moo xam ne muy waaw te lëkk dimbali mooy wëli yàlla ba boo ko ko waxee rek fekk na déer nañ ko la ca waa xay bu jur mu daal la koy tekki waaye su ko defee nag base fondamentale bi mooy xaqul yaqin te xaqul yaqin ku ci nekk sa xol nga koy dund mooy li sa rox ressentir moo tax yàlla c'est grand missionnaire bu leen yabalee dafa naan fexe leen ba seen discours bu mu njëkk ci nopp yi na njëkk ci rox yi bu njëkkee ci rox yi rox bu ko dégg dana yëg ni dégg na tey lu ko yëngal waaye bu njëkkee ci nopp yi bu duggee fii jàll fii waaye nag ñu bare bëgg nañu ko waaye amuñu arme bi ndax arme bi nuuru kudos la ñu bari amuñu arme yàlla dénk bariwul bu ñu waxee rek seen moo koy dégg yàlla day jël seen voix rocc ko def ko benn ci shahada waaw nu ni voix autorisée bu wax léegi nag voix autorisée boobu ci xay lu mu wax rek ci loolu la yàlla d'accord xoolatul ndax lii baax na xoolatul ndax keeku baax na xoolatul ndax keeku yor wér lu voix autorisée ba wax rek loolu la yàlla moo tax ñu mën baaxal nit mën àll nit lépp ci seede ci yow rek lépp ci seede ci yow ñu mën a wax léegi lu baax ci yow ray bu daal di koy apprécier nu bindal la yow yi dul jeex waaye ñu mën a wax léegi safaan ci yow ray bu daal di koy apprécier nu bindal la safaan te lépp ci yëkkati kàddu rek mais loolu lu am importance parce que lépp voie autorisée rek waaye dana dem ba zaman pour xam ni voie autorisée dafay doon problème moo tax yonent bi ni woon na ngay tey na ngay tey ci wax joo mënu la tekki ba borom tekkil nga bopp nga soog a joxe sax parce que yonent bi nee na soo koy def rek doo jóg ndax nee kenn ku wax am na lu mu jublu ci ay wax moo tax léegi wëli yi daan wax ñu yëg ni ñii kat la ñuy wax waxuñu ko dana leen ko wax loo dafay am sax ci xale dafay am ci xale mu wax dara nga xam waxu ko dañ ko ko wax dafay am ci mag mu jug wax dara nga xam ni lii waxu ko dañ ko ko wax loo waaye foo leen fekk ñooñu dañuy takkoo jaam yàlla mooy borom certitude foo leen fekk da ngay ressentir ci ñoom benn organisation mystique bi ci seen am na fii ay nit ñu mystique waaw ndax mystique dina toll ci nit foo xam ni même cëram daf koy wane cëram daf koy wane bu baree dëgg lay dem ba feeñ ci bëtu nit ki waaw day dem ba nit ki cëram yëpp dañ koy wane nga gis ko fii ndax turu yàlla diggante ray ba shahaada xool ray bu deux xool shahaada dem ba dootoo ci mën a xàmme sax bu tey sharaada ak waaw loolu lu yéen te Mawlana Cheikh Ahmadou Tidiane dëkk balaa naw taalibeem taalibe bi dem ba toll foofu parce que waxu ko mu dem di jaare ci ay talsa pour mën fa toll mu jaar ci salaatul fàtte ba toll fa mooy tax mu naw Cheikh Tijani xam naa lu mu amul lu dul leer moo tax mu bëgg nit ñi leer bu la gisee rek fonk la moo tax mu dem ba ni jamono ju ñu waxee ni wëli yu dina raar ñi koy jurati mooy ñi nga xam ni ay borom leer la ñooñu rek kay mën a tijjoo wëli ndax wëli yu day am jamono ku ne ñu garanti ci dogalu bi yàlla nga am ko mu tollu jamono privilège lay privilège lay nga am doom muy wëli parce que ki la ci kooku lay dépendre tax ñuy wax li li góor gi di daj ci denc soxna pour tànn jigéen jee gën a war a daj lu ñu ëpp pour xool ban borom kër la lu am sol lu xam nga duñu foog nun suñu aada góor dong moo war a daj dem xooli di tànn soxna soxna daj lu ko raw pour tànn borom kër parce que dafay mujj mel ni góor gi rek moo bëgg lu baax te soxna mooy responsable mooy yar njaboot gi mooy yar lépp waaye lépp day dellu ci supervision seen waajur waaw fekkee seen waajur matul la mu doon bis bu ne mu créé scandale te foofu la ñu toll ku yóbboo xoolaat sa bopp waaw ku fexe daal ba dund dundi leer na fexe ba wut ku ko ko sàmmal waaw muy góor muy jigéen ku fexe ba dund dund leer na fexe ba wut ku ko ko sàmmal waaye bañ wut nag ku ko ko yàqal waaw te bokk na ca yàqal sa bopp fekk ko bokkalul ngëm-ngëm julli nga bëgg bëggul julli woor nga bëgg bëggul woor yàlla nga bëgg bëggul yàlla nga dem nii da nga àndal moom tooñ sa bopp la te islam santul kenn mu tooñ bopp waaw loolu lu leer nañ ni mag ñi daan nañ ko wax ni sëy jaamu yàlla la waaye parfois nag sëy ba viré viré au drame waaw te bu boobaa dootul nekk di jaamu yàlla kon condition yooyu lu am solo condition yooyu lu am solo la waaye nag jamono aada la neexatul tànn ndax ñooy tànn ñëpp jiital tudd jóg waaw bu dee góor ni ñenn ña ngay xool ko rafet jigéen ñi ñenn ña su ko defee nag diggante taar ak xaalis su xasee ba nekk ci sëy kooku dootul dootul dootul baas dootul base fondamentale ndax nit fayit na fi ba tey te fekk milliardaire la nit rafet na fi ba tey xëy suba am benn opération chirurgicale boo xam ne boo ko gisee sax doo ko xam moo tax yonent bi ni njug ko daal moom moo gën te wax na dëgg nag waaw waaye njug ko daal bi ci dàq mooy soxna soo xam ni boo lalee malaan mu wéttali la ci waaw boo laazimee seen ko sawet muy laazim boo defee sa xadaratul juma seen ko sawet muy zikk soo géntee leer mu gént leer soo gisee cheikh mu gis cheikh kooku na may million jar na may xaalis bu dem jar na may lu nekk xëy koo xam ni boo géntee leer sonn nañ <laughs> mag ñi mag ñi ñu am xel lañ moo tax ku ci ne ci ñoom dafa am néegu bopp ku gisul lu ma xam ne tudd ci waaye nag dafay tuute dem na ba muy gis soxna yu yu takk jàmm yàlla seen borom kër man gis naa ko fii man gis naa ko fii de waaw gis naa fi góor yoo xam ne dugg nañ soxna si de waaye dugg nañ si lu weex xat ndax fajar daañu jóg bu loolu soxna si dana wér di sa nopp ba mujj la boo yeewu sax gàcce ngay yeewu man gis naa ko fii waaw gis naa ko fii de wax ni kay bis bu la wut lay ay seet dina xam naa ni heure bi soxna si du leen wuyu waxtu ba ca teer mu jóg seetal loolu lu war lu góor waroon def dem bu jigéen def ko lu extraordinaire extraordinaire la waaw te nun tamit sunu ndam la waaw am na yoo xam ni man personnel dama ciy am ndam waaw ndax dama dajeeg benn nitu yàlla arab la daf leen di surveiller lu bari ndax nee na seen soppe ma dajeeg moom xaddara ba mu ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh li nga def mu ni ma gisaguma ko ko def waxul sax ci mission bi nii waaw nee dafa am lu ko yëg mu ni ma dama gis ci sa disciple yi tuddal ma turam kenn jigéen la mu ni ma dama gis nga tarbiye ko ba mu tiim mbóot ci néegam jël dàll te ñemewul dóor mbóot mi mu ci dàq mbóot mi mu ni ma image boobu frappé tiim mbóot ni ak dàll bàyyi mbóot moomu dem ndax ba mu ko tiimee yow la xalaat ak la nga ci doon mu bàyyi mbóot te boobu buur seen mbóot rek insecticide baa lay tàkk lu lu jafe la lu la eh, lu jafe la lu jafe la da nga ci am problème si da nga ci am problème da ngay dem ba def la tam seen rek na loolu moom bu toppee sang bi dootu na lay mbóot yi dootu nay gunul dootu na lay daal léegi nag su ko defee ñoom ñu atable nag suñu waañ yi ne fekk na nit daf fay àgg day dem ba jàpp ni kii mi ngi ci zikr waaw lii muy def xëy na yàlla moo ko ko waaw donte am na autorisation débarrassé ci moom mais mu def ko de la plus belle des waaw mag ñi loolu dañ daan wax dañ daan wax am nga autorisation débarrassé wu ci ñoom mais def ko de la plus belle des waaw ba tey ñu dem ba ni boo ko doon faat sax bu ko faat yenn yi comme ni ñenn ñi di def daw rek jël seen tànk dëgg ca karo ba mu ànd ak karo waaw am na ñoo xam ne noonu la def daw rek jël seen dàll dóor ba nekk ni kër gi xanaa dafa am yóbbu fi daal yooyu yëpp jàll ko parce que dañ ni jàmm yàlla la dañ ni jàmm yàlla la te dafay zikr te ci moom la tuddee la facilitateur nga xam ni zikr yàlla lu nekk rek organisation lu nekk organisation ku ci nekk ci picc yi ci rabu àll yi ku ci nekk jox na la sa wàll bu mu mot sëkk ba noppi sédd keneen it ba mu mot sëkk waaw jox mbóot la mu koy jox ba du nekk mu àttal ko wax waaye yàlla jël bant sonk def ci moom secret boo xam ne bis bu mu tàggee ci moom jeexal takk zik somp yi nga gis muy sax ci biir ban bi waaw moo tax lu mu wex wex xorom somp yi dinañu génn dinañu taxaw nit mën na ci dagg def si sakk te du leen gën waaw moo tax yàlla lu nekk def ko te au fur et à mesure ngay gis loolu ci ngay comprendre dund suuf yi dund suuf yi ñu mel ni ñëw imaamu jullit pourquoi ñu amoon seen comportement bi ñu amoon dem ba ni sax jaratul ñuy wax nit au contraire nga ñu dem waxtaan ak garab yeeg rab yi daf lay jaaxal boo dul nitu suufi mais da dem ba yëg ni nekk te ñi dañ doon gëstu te dem nañu ba trouver seen réponse da yëg ni ñii dañ doon gëstu te dem nañu ba trouver seen réponse muy lu am importance mooy nit kuy posé boppam question dem ba trouver dem ba trouver réponse am nañu ñuy posé seen bopp question mais mënuñu trouver mu ko réponse ci li ñuy mais bis boo demee ba trouver ko c'est parce que weesu nga ay étape te jullit bi loolu la war bi sax mooy bis bu nekk mu xool nan lay fexee ba étape yi mu taxawoon mu dépassé ndax yàlla boo amee ambition rek am objectif mën na la dimbali nga atteindre ko ki yàlla mën na loolu dara mooy ki mag ñi daan wax ni mooy ki xamul la mu bëgg parce que nee na yàlla dafa dul xam la mu koy may waaw ndax waaw na comportement soo àgg ci yàlla am na comportement yoo soo bëggee nekk na comportement yoo war a bi dikkul yàlla lu jar di ndax fii dëgg la organisé waaye barsax ñoo gën a organisé te ñoom dootuñu bàyyi dara mu jàll dara mu jàll waaw ku ci nekk rek ñu ñëw ñu ñu laaj lu sa dund lan la bis boo amul kilifa bu intervenir te kilifa bu intervenir ni mu jafe dina làq ci xutbaan loo xam ne diggante xayb ak shahaada ndox ci moom ci woyof waaw su dul loolu du jóge fii moom ndax du xam sax ci loolu ne te lu bari lu muy am la waaw maa fi mës dégg fii ci Sénégal nit toog nit diw bii wax mbooloo ma maa ko gis yónni na leen neer nangam ma nga leer ma ngay melax boobu defe naa leen côté côté quatre vingt dix ma di déedéet déedéet parce que ki ma xam warul mën a yónnee noonu ni ko mbokk mi wax dama ko seetaan nii rek pendant ma ni ki ma xam mën yónnee noonu ma ni naa ma dem laajte ko fi ñu ko parqué même malaaka yi mën nañu àgg ci li ma nag boo ko bëggee gis ma ne ko ma ne bëgguma ko gis sama bëggoon dëggal wala ma weex li ma dégg mbokk ma di wax ci télévision am naa ci yaqin baax yoo xam ni malaka yërmande sax du fa ngi mel ni nga jël nga jël wér du tariqa bi ci ku dog ci tariqa bi wala nga jël ci wér du tariqa bi ci muxaddam mu amul ndigal wala nga jël wér du tariqa bi ci koo xam ne hijaasam valable duñ la yóbbu barsaxul mag dañ lay parqué rek benn place bala ngay souffrir te souffrance ba yàgg teg sa bopp am na lu tax parce que xamoon nga ko woon boo ko xamul dañ la koy tolee mais boo ko xamee kenn du la ko tolee am na ñooy wax baatin nga kay du baatin zahir nga xam ko cheikh dafa tëral condition yu leer rek koo dégg muy déngal nit ñi ci tarika bi nekkul ci tarika bi cheikh ko wax du man ko wax koo gis du wasifa ci nekkul ci tarika koo gis du xadara mu du laaj nekkul ci tarika ku ma tëddal loolu man wax moom Cheikh ko léegi nag boo gisee ku mel noonu mu présenté la ay jali hijaasam jali hijaasam nga dem mooy lu wér daa koy ki lay may wér dafa war a nekk royukaay ci yow ba nga xool ko ni kii bëgg naa mel ni moom xaaral ma dem mooy lu wér lu am solo léegi nga dem barsax seenu lumière tariqa bi ku ñu ne la amuloo expliquer parce que xamoon nga kon tu es obligé que ñu bàyyi la ci benn place kon nag yërmande yàlla dana fu ñu wala du fa ñu moo tax lu jar di bàyyi xel lu jar di bàyyi xel da fekk nag organisation yi mouvement yi ñoo bare ba ñu bare valeur tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif xam te Cheikh nag moom ku xam valeur tariqa njàngale bu mu ci def rek xam na lu tax jamono jee xëy na benn bés wan ma réew mii di Sénégal la ca naroon na daal jox ma benn ñaan ni ma naa wax ñaan bi pour ñu dégg ma dem bay waaj a ni naa wax ñaan bi bu xëyee mu dellu si waat dégtalaan ba beneen kàddu ni ma déglul naa fekk bii la wax ci biir néegam ci sa ñaan bi wax ko si bitti de si biir néeg ma déglu ba yàgg ma ni ko est-ce na jàll sax mu ni ma yaa sës yaay xool ndax jàll daa ko jàlli wala doo waaye déglul naa fekk bi ma seede naa fekk man Cheikh la mu wax lépp te kooku du wax mu ko ci biir man xam na ko ma xalaat moom Cheikh Tijani Chérif ma ñaan mooy ko bi ma defoon ci yàlla na jàmm muy wàcc ci Sénégal ma ñaan te jàngale ma ñaan dama ko ñaan moom waaw boobu lu ma gis bari na ñoo xam ne bu ko gisoon dañu tal leneen ba toog fii di ñaan sax waxatuma laaj di wax yàlla jàmm moo ci ci dañoo daw génn génn loolu ñu ñëw bu ko gisoon pour wax la lu nekk li ñuy gis saxaw ci waaw te li yonent bi doon wax xool naqare bu ñu lu nekk man moo xam man kay dal ci ñëw pour pour ñu baax waaye mënuñu ko def seen sëriñ rek day sànni te boobu pourtant yonent la waaye ku mën ko dalal ku mën moo nekk buñ la ko bëggee def yàlla du la ko def ndax yàlla yaay wurusu yàquutam waaw yonent bi kontaan ba bët yi daal day sànni fekk boobu désespéré la mer xool nit ñi mere de waaw di xool lu ne man kay daj ci ñoom pour ñu baax waaw yàlla yónni ma ñu ni ma lu def yónni ma tey jii nekk ñu ngi ma koy yàq ngir mission waaw bëgg ma def seen sën waaw man xool ko xam ni énervé na waaye comme compagnon la mu delloo si ni ko ñoom bu ñu la ko defee yàlla du la ko def yàlla yow yaay wóorul si yàqutal waaw yonent bi bëgg ba bët yi tax sax te yonent bi te Umar ibnul Xattaab delloo si na ko ci situation delloo si na ko ci situation. waaye loolu doo ci doo ci bàyyi xel ndax mission moo ni mel waaw te itam nag yàlla daf la koy jox loo koy muñi yàlla daf la koy jox loo koy muñi ndax yàlla ku juste waaw boo déggee mu ni fa taala allahu malikul xaq yàlla buur bu juste waaw te juste sa mënoo ko xam lu dul nga nekk ci yoon fu nit ñi di weddee daf lay gën a dëggal rek waaw bu xamee nit ñi bëgguñu gis leer leer gay gën a melax waaw xam ne nit ñi bëgg ñu gis yiw yiw yee gën a bari xam ne nit ñi bëgg ñu gis taar taar gën a rafet moom yàlla la su ko defee nit ñi dañoo wax wax ko ba mar ñu def naa ne waaw nga continuer dox si mission jeex mais li ma déggoon benn man wax ko dëgg la nee na réew mi kuy déglu waa xay ginnaaw bu ñu la joxee ñaan ba noppi la rëccee nit ñi di teg nee na kon loo joxe mu ko benn ñaan waaw ndax loo wax ci ñaan ñu jëfandikoo ñaan ba ba pare xas la mi ñaan <laughs> te dañ koy def ba noppi ba seen xel daal ñu di lay xas yow mi ñaan ah, kenn mënu su gis loolu te nag nitu yàlla yi ñoo mën a garanti fa ñu dëkk ah. ñoo mën a garanti fa ñu dëkk ñoo mën seen réew ñoo mën a garanti àdduna ndax bu destruction amee seen destruction la bu baax amee seen baax la waaye malheureusement ñoom kenn leen ci dégg te ñoo nekk ci suuf guddi ak bëccëg la dañuy intervenir ba de ba da nga naan xanaa ñii seen problème personnel la da nga koy mujj wax fekk du seen problème sax bis bu ne ñu waaw léeg-léeg bàyyi fi baax léeg wan leen nit ku baax ku nekk ci yoon yàlla ñu ni leen kii de d'ici quelques années dana yàqu te kooku boo ko ko waxoon boo moytuwul mu xaaru ndax bëgg ñu ñaanal la intervention te léeg-léeg nga demandé ca ay yàquteem lan ndax lu mu def la wala ñu lu mu def coobare yàlla la yàlla lu ko neex la yudillu man yasha wa yahdi man yasha moo tax naa bu wóorul wóorul mukk kenn du ko def poste bi ma yore si fini dootuma yàq kenn ko def ndax boo ko waxee sax yaa ngi commencé yàq ndax mooy yoon léeg-léeg wan nu ko wala nit ñi la d'ici quelques années dana mel nii nga ni lan ñu ni coobare yàlla ñu ni coobare yàlla moo tax nañu bàyyi xel bopp lu am solo waaw su ko defee xadara bi itam ñu xam ni xadara Mawlana Cheikh Ahmadou Tidiane waaw waaye ñu fexe ba organiser ba li nit ñi di wuti ci biti te mënuñu ko am bu nu ñëwee fii ñu am te mooy seen sécurité jaamu yàlla bañ leen teg bañ leen chantage ku ñu am rek loolu la ñu dénk xalifa bu ñu am xarit bu ñu am kóllëre bu ñu am loolu la la dénk ndax mag ñi dañu ko am la nee na ñu ndaw yi bu ñu daw si jëm ci diina ji yàlla nañu fa fekk li ñu kon kon nañu fexe ba suñu xadara bi nañ ko protéger ku ci nekk xam ni yàlla yonent bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moo la fi indi nga taxaw ci luy futilité ñu tekk de côté lépp lu jëmul ci yàlla ñu tekk de côté lépp loo xam ne du jëmi nit fu baax ñu tekk de côté wax naa ko mbokk yi sàng ma ni leen ndimbalante baax na ndimbalante baax na te mu ngi ci xadal waaye ma ni li may rejeté mooy bu benn nit teg nit pression ci àll waaw parce que man du ma ko def abadan li la am te ëpp na nit di ko def waaw téléphone yi ni ko jox ma nangam ci xaalis c'est parce que dana ko yam bu la rusee nag bu ko amul def te erreur waaw loolu kenn mu ko def ndax dafay tax nit ki dootul am dalu xol dootul am dalu xol dootul am dalu xel ne ci ñëpp bàyyi xel su ko defee itam xalifa yi ñu am ñëpp ñu xam ne ñu topp seen gannaaw yàlla la ñu topp yonent bi Mawlana Cheikh Ahmad Tijani man Seydi Mouhamed El Cheikh message bu clair bu explicite ndax dëgg la dañuy sore waaye bu kenn jël kala topp def ka taalibe parce que du sa taalibe waaw kooku kooku c'est vrai te il faut il faut le lu am solo ndax mbooloo mi léegi dafa bëri boo mënul contrôler ñëpp boo amee guddi gu mel nii dangay ngay def lu Cheikh El daan wax mag muy wax benn ndëngam ci benn guddi bëgg ñëpp fekke ko mu wax leen ñu topp xalifa yi yëpp sama jëmm ma tax mu topp leen moo tax bu nee am kenn ñu dal ñu lu am solo lu lu am solo la lu am solo la te lu yee lu yee nit lu am solo la waaw mag ñi daan nañu ko wax nee nañu nit su ngeen bokkee sëriñ def ko nawle waaw bu ko def mukk jaam def ko nawle te koo def nawle la mu am bàyyee ko la nga am yow nga jàpp nit nag mën nga soxla ndimbal wax diw nag ma dimbali ci lii wala kat nii su la dimbalee xayr su la dimbaliwul xayr waaye yu ñuy rejeté suñu xadal mooy woo nit ni ko envoyé ma nangam ci xaalis amu fi waaw amu fi woon te dootu fi am abadan insha lu leer naa ñu nit ñu bàyyi te bàyyi xel ci mbooloo mi bàyyi xel ci ñu ñu topp ndax man yàlla dogal ni ñi ma am jàppiwu ma ci kenn taalibe ku ci ne xarit laa la jox ku ci ne xarit laa la jox ñi ma am ñëpp xarit laa leen jàpp xëy na nii protocole bi mooy xaat sécurité bi damay xool ak sécurité bi toujours rek keroog rek maa koy wax colonel mii ni ko ah, bu ngeen mën a rey jël otage ci gàmmu gi nag ma jël sama séeréer rek toog ci diggu nit ñi dañ ko duñ la jël otage dañ lay bàyyi nit ñi des waaw waaye da fekk rek ñu nii comme ñoom seen liggéey la def dañu yore sécurité bi ñoom waaw parce que lu ci xewul ci siège bu daanoo leneen parce que man ku ma am sama soppe te ñëpp am relation man waaw ñëpp am relation moo tax lu am solo xalifa yi nag li ma leen di yabe yab naa leen ko sànq bi ma leen di recevoir nee naa leen kenn ku nekk li may xaar ci yéen mooy nga dem liggéey liggéey ba tarbiya nit ñi nuy wasifa suba di wasifa ngoon di laazim suba di laazim ngoon di def xadaratul bu dee diaspora la bu gàmmu amee yow xalifa bi nga dugg ci Boeing bi yab leen ci bi nga yab service wala kaar ñu ñu ñëw loolu lay xaar ci xalifa bu ne waaye faruma kenn xalifa pour taxal la benn dara ya nga toog sol garam boobu ndax man mii def moom def ma ko ñi ma xam ñu dëkk fii mën nañ ma seede boo fi dellu gannaaw suba fii fekk ma sol sama bulus toog fii ci buntu kër gi di wax jàmbur bi ñu jógee Ross fekk ñu jóge fa samedi le lendemain dimanche ñu ànd maa ngi sol sama bulus nuy sport yi di jaar ci biir nuy daw ba yàgg ma ne ko ku la wax ni kii di sport démb moom la ay nit yu bari wër Ross pour mën ko gis mënul fexe ba jot ci te mi ngi nii di sport kat léegi bu ñu ñëwoon dajeeg moom ni ànd ak moom dee sport ma ne ko loolu mission lu ñu yor suñu pare suñu bu ma teg ko sol suñuy yëre continuer suñu problème moo tax ku ñu fal rek roy ñu ci loolu waaw loolu moom ñëpp mën nañ ma ko seedeel waaw ñëpp ay sàn bi ñuy def piste bi fii rek dañu taxaw ci jàllu suuf bi ma tibb peel bi di sotti gardien bi nekk fii suñu xarit la ni ma ay suula fi sama soxna gisoon mu ni ma keroog dafa ni ma gis naa sëriñ bi muy dox te jëlul oto nee na mën nga sëriñ bi bis bu ne nga fi jaar ma ne ko kon na fi jaar comme ça mu fekk ma muy tibb peel suuf bi moo xam ne sëriñ bi mi di loolu mooy loolu mooy nit loolu mooy nit nag ma wax la ko léegi nag loolu nit waaw waaw wax na ko nee yéeg ñëpp wàcc la ñu bëgg ñii bëgg yéeg ñëpp mooy ñi yéegagul wax na lépp mu ni parce que ñu ëpp marta ba ko ci fekk fu mu toog añu nit ñi fu mu toog waxtaanee nit ñi te dëgg la moom deram la daan ñëw rek lal ko ci buntu dëkk ba mbokk yi ñëwal ñu seet lu ñu dajale ci dëkk pour togg añ ñëw fekk mu génne loolu pël yi tuddee a gi waaw def ci meew soppoo ak toog fii mag yow ñuy wasin ñoo yem képp ku ci ne ñu tolloo yi kon marto bi ko macha allah